mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, di am mbégte di dellu siwaat euh, sunu jotaay bii ñu jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall di seen émission Jazbul Murit di leen si ziar bu baax a baax tàmbali si ziar yi ak ñaan yi Cheikh Mouhamadul Muntaka moom Cheikh Mouhamadul Bachir mi teg jotaay Serigne Touba Xaadim Rasul di ñaan sunu borom yàggal ko fi loolu te maa ak wér la ñuy ziaree ak a ñaanal Cheikh Jëmb Fall mi toog jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall sunu borom yàggal ko fi loolu te maa ak wér. di beral nuyoo ak ziar Serigne Cheikh ngi dofal di sunu yaakaar tey ak di ñaan sunu borom kattanal ko ba li mu yéene liggéeyal maamam maam Cheikh Ibrahima Fall sunu borom kattanal ko mu defee ko nu koy njoxtam te ànd ak mbokk yi am mbégte kon gannaaw weeru koor wu tedd yi nga xamante ni moom la ñu génn ak liggéey bu rëy bi nga xamante ni euh, ànd nañ kaak mbooleem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall si ndog yi waaye weeru shawaal gi nga xamante ni taw feex da see amaat ci liggéeyu institut islamique bu mag bi nek ci Mbacké te Cheikh Mouhamadul Muntaka yàlla sun borom dole ko kattanal te dole ko fee yagal djel ko tek ko ci loxol mam Cheikh ibrahim Fall jëmb liggéey boobee gannaaw ba mu amé ak neggandiko ab dir ñu wat ko kon ci wéru shawal gi xam ngeen ni soññee nañ ci ci jotay yi wessu kon gannaaw wéru koor wi nak ak wéru shawal wi manam ci diggu tabaski bi du zul qaada bi moy jotay bi ñeek kon ñu wat ci plateau bi seen jotay yu jezbul Mouride di ci bëgg lool and ka ak sunu serigne serigne khadim ndjay kayar nga xamanteni ni Mamour bañ ko lancé ndeysaan ñepp ko rafetlu namon ko lool wax deug yalla kon teewaat fi inshallah allah waxtane sa mam Cheikh Ibrahima Fall ak njangalem nan lañu ñu def ba jarruñu ci serigne Mamour Ndaw bay Fall gannaaw biñ la nuyu assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatulah sëñ Aline Badara. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. بلائي ومع أمراضي وبردعة فان لأمراضي وعن سرالة خلق والرسائي وجن وسيطة عبد الله جناب سنتي يالا جولي تي يالا نتم بوتي دي نيغي نانا سون ياكار شيخ محمد المنتخا مو ياغي في لول تير واي نانا كو باخ سيرين شيخ جيم سون بروم دولي كو في ياغ لو ko wér waaye ñaanal bu baax baax nag mboolem njabatu sëriñ tubaa gépp ak mboolem seexi sëriñ tubaa yëpp di la jaajëfal baax suñu àlline badara di jaajëfal baax suñu kilifa bu baax yi nga xam ne moo ñëw ci jotaay bi di Serigne Khadim Ndiaye Kayar nga xam ne moom murid dañ ko bëgg lool nag ndax boobaa léegi ñu ngi nemmeeku di laaj nga xam ne biñ nee moom la ñu dalal rek tey murid ndeysaan gis nga leen sax ñu ci bari ñu ngi ñu ngi ñëw ci jotaay bi ndax am yéene ndeysaan dégg dara ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baye murid dina waaye muy boromub cër nag ndax doy na sëkk rek ñu ne bàyyam Cheikh Ibrahima lañ ko dippee loolu dina ci dëkk incha allah waaye doy na sëkk itam ñu ne bàyyam Sëñ Tuubaa ko yar ci njaarim loolu itam yooyu di yoo xamante ne bii tey kon dañuy xam ne jotaay bi moom jotaay moom ba pare muy dund maam Cheikh Ibrahima Fall di borom xam-xam eh, defe naa lii nag du njëlbeenam ndax ñëwoon na fi donte ne ay at ci ginnaaw tey ni ñu delloo ko te it nag ku ku ku ku yorub gëstu la nag ci mag ñi nga xam ne am na ci ñoo xam Cheikh Ibrahima ak yu bari yoo xam ne toxalee na ko ci ñi nga xam bind nañ ci maam Cheikh Ibrahima Fall loolu lépp bokk na ci lu mu waajal ngir fas yéene ko indi tey eh, ci jotaay moo tax nag biir réew mi ak bitim réew ñëpp sëñ Aline Badara tey ñu ngi bàyyi xel jotaay bi te am yéene ci jëmmi sëñ Xaadim Njaay Kayaar ngir teewlu ko bu baax a baax a baax nag eh, di ziar bu baax nag mboolem kilifa yëpp yi ñuy topp nag xam naa sax dañ koy tàmbalee ci soxna Seyna bu ci am Fall ndax gis nga tey bi ñu gën a sëñ Xaadim Njaay Kayaar mu ñëw jotaay bi daa daal di waajal ko yi gis ne <laughs> mooy doom yu ndaw yooyu nga xam ne defe naa gerte caaf lañ koy wooyee <laughs> day am solo yoo xam ne léeg xam nga booy kii man di ci teg di ko jàllale day am solo su ko defee lépp rek ngir am yéene ak daayira bi nga xam ne ñoo nekk Mamel nag tey si Roansir sëñ Ibrahima ngi nii toog murid yaa ngi nii sëñ Bayloo Baye Fall. Hmm. Euh, sëñ Ndongo Fall ndeysaan ñoom ñëpp. am yéene tey gunge sëñ Xaadim Njaay Kayaar ci jotaay bu am solo bi ci waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall ah, Babil Mouride dina signalé ba xam naa moom duñ guddal ndax tey moom ku <laughs> teg wet gi rek ah. tey su ko di di ndax tey nag damaa yëg ne hmm. tey moom damaa yëg ne damaa sol lu rafet moom moom li bëgg moom léegi moom Baye dama ko yëg daal xam nga yow da nga di Baye turki njaari man day day day da kii turki njaari moom moom moom daanaka ndax sëñ sëñ sëñ murid bu ñu wax ma Diop xam nga murit la dëgg la moom moom kii gannaaw nag waasu ca marché na xasida bi suñu xaajum caam ak mm-hmm. ñoom suñu Ibra Gueye ñoom murit ya fa nekk nag ndeysaan ma waxtaan ne maam Cheikh Ibrahima Fall ak xasida yi mm-hmm. ñu jox ma tiise bi na ma naa ko sol loo si mën di dégg mooy da ngaa bàyyi faale. Ah, faale yaram ah, waaw. Ah. moom tey ni nga génnee kii rek. ah xam ni moom. <laughs> tubaarkàlla suñu borom gën doole laa taxaw rek. macha allah moom faaw ñu ñëwaat si moom. waaw faaw ñu ñëwaat tuuti njaarim la yaakaar naa la waaw danañ si dikkaat léegi. Seydou Bamba Diop a tax ma bëgg turki njaarim. waaw moom nag moom moom tubaarkàlla. moom moom su ko solee moom moom daa murit naturellement waaye bu ko solee moom. <laughs> ñu ngi koy ziar bu baax suñu murit boobu. di di di di bëgg lool sëñ Xaadim ci bokkaat ak yow jotaay bi lii sëñ Mamour wax rek ndeysaan dafa dafa dafa doy sëkk euh, ñun moom da da da ngeen a sori ñun ba xëy na moom amuñu luñ si teg mm-hmm. <laughs> waaw suñu borom dolli laa sàmm tey dolli la fee yàgg loolu da ngaa dëgër waaw ak ak murid yi ni ko waxee ñoom sëñ Ibrahima Ndiaye mm-hmm. ñoom sëñ Ndongo Fall mm-hmm. ndeysaan ñoom euh, murid Mbayloo fas yéene rek kon taataan asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam Cheikh Bala aouzu billahi mina sheytan rajim wa inniya أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جلدي بك طالبي taalibe دي نيو ngi leen di nuyu لين leen siyaar di leen waaye di ci nuyoo bi sëriñ Mountakha Mbacké ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér mm-hmm. ak sëñ Cheikh Jëmb Fall ñaan yàlla mu yàgg fi loolu ci wér njabootuk mm-hmm. eh, sëriñ Touba gépp mm-hmm. njabootuk Cheikh Fall waaye sëñ Bata ñu ngeen jël nuyoo bi jaar la ko ci yow di rafetlu jotaay bi lool ci émission bu solo bi nga xam ni saa yu ne taalibe yi ñu ngi leen topp ak jullit yi ndax lu am njariñ rek moo ciy génn eh, muy jësul murit di nuyu baax sëñ Mamour Ndaw Baye Fall moom it di ko siyaar ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci eh, plateau bi toog ne xam naa nañ ñëw seen tur eh, dañ leen a feddali ak mbokk yi nga xam ne ñooy suñu eh, équipe technique bi ñu àndal ak mbokk yi topp yëpp <laughs> jërëjëf sëñ Khadim sëñ sëñ Mamour ni nga ko waxee rek moom tey moom ku déglu ku nekk da nga dégg incha allahu rabbi ci nag murit bu mag boobu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baawul Murid ndax nag murit bu mag bi suñu demee ci minanul baaxil xadim moom la ko Cheikh Mouhamadul Bachir tuddee diggam ak Serigne Touba maanaam foofu sax lañuy tàmbalee murit bu mag nan lañ koy mën a nan lañ koy mën a jàngatee nan lañ koy mën a génnee lan mooy murit bu mag bi waaw xam nga xam nga euh, murit xam naa dañ ñëw sax ci baatu murit bi mm-hmm. waaye comme tur bi rek li nga xam ne noonu mooy li muy tekki xam nga ñaar lenn lu nekk Euh, su fekkente ni dañ koo dafa nekk ba dañ koo naatal loolu ci wàllu naxwu la baat bu ñëwee ñu naatal ko ci leneen tolluwaayu baat ba mu ngi réyee ci lan ko naatale maanaam al rek doy na suñ ci dooree al nag na nga xool ci eh, na nga xool mbirum suñ borom al aliyul azim gis nga asamiul alim comme ñu mel noonu nga xam ne dañ koy laafal ci loo xam ni day wan màggaayu loola moo tax gis nga ñaari baat yi day am bu ne day am liif ak laam al muridu maanaam murid bii moo moo moo màgge nii waaw <laughs> dégg nga wax ji loolu loolu loolu daraja la loolu nag ñi jàng na ko xam ne li ma wax ndax tolluwaay bu rëy la ndax naara baat buñ ko laafalee ci dara buñ ko fekkee dañ ko naatal ci dara rek day wan tolluwaayu réyaayu réyaayu loola ak ak màggaayu loola loolu lay tekki hmm. murit bu mag bi sëñ Mamour yaa ngi koy dégg mooy maam Cheikh Ibrahima Fall mm. ndax danaan wax moom murit murit Ibrahima Fall mun Ibra Fall <laughs> loolu waaw ni ni naan sëñ sëñ Bamba bu doon dëkkale it mm. Cheikh Ibrahima mooy yoon wa ca jëm mm. nga xamante ni euh, sëñ sëñ Xaadim maanaam digganteem ak Serigne Touba Xaadim Rasoul saa su ne duñ noppi di ko wax ca Mbàkke Kajoor la dooree ba suñu jonni yàlla tey ji foo ne Serigne Touba di maam Cheikh Ibrahima Fall seen ànd boobu waa xam nga xam nga xam nga wàllu wàllu kii nag wàllu tasawuf mm-hmm. naka jekk loolu la baaxoo mm-hmm. maanaam euh, ba ci yonent yi mm-hmm. soo leen toppee di ñëw kenn ku ci ne rek saa yu ñëw rek am na koo xam ne moom mun caa ñàkk faaw mu bokk ca ah. waaw ndax bu ca bokkee dafa am loo xam ni cëru suñu borom lay doon ndax daa am loo yàlla moom mooy def loolu mbir mu nekk rek Eh, dafa am ab cër boo xam ni daa am ku ko jagoo ca loola te faaw mu teg ko mhm. tey fi ne boo doon indi eh, eh, siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ak ak ay mbiram mhm. boo ne ñukk ñukk rek faaw nga ne Aboubacar Siddiq dëgg la mhm. <laughs> yaa ngi dégg te xam nga ni Aboubacar lam taxawoon ci yonent bi te li gën a yéeme ñoom ñaar ay bi nekkee ay ay ndaw ci saayir lan xamante woon xaritoo teg ca ànd teg ca gis nga kon loolu gis nga moo tax boo demee ci eh, eh, yi nga xam ne ñoom ñooy saxaaba yëpp Aboubacar rek nga gis mu yor ñu ni ak siddiq siddiq du tur ab grade la ab grade la waaw mm-hmm. ndax ndax boo xoolee xutbaani bu fekkente ni eh, nubboo dafa jàll siddiq ya moo ci topp xutbaani ya topp ci mm-hmm. siddiq ya moo ëpp doole xutbaani ya booy xool yaa ngi dégg kon si diir du du caaxaan moo tax Abubakar ñu wax ni su fekkonte ni dafa tëddoon di nelaw saaba yi yàlla moo ëpp ndax léegi tuyaabam kenn binditu ko ci li muy def ñu ngi ko bind ñu koy bind ci garab bi <laughs> est-ce que kon kooku kon da nga naa mënu woon a manqué mm-hmm. soo ne yont bi boo ne yont yàlla Moussa da ngay xam ne Haaruna mënu woon a manqué ci moom mm-hmm. te yàlla ba muy fal Moussa ab yonant booba Haaruna du yonant ak yonante Moussa moo ko ñaan yàlla ba yàlla fal ko ko ndax xam na ni moo ko war a jottali ay xam nanga gis nga yàlla ba mu nammee loola daa fexee ba Moussa lakk mhm. ñu mun leerul bu baax mhm. te ba noppi jóge na Égypte te moom xut su la dëkkoon mhm. kon kon seenu làkk am na fukki at ñëwu fa mën na koo fàtte teg ca Haaruna ma fa nekkoon nag gis nga ni yàlla gis nga ni mu ko programme kon mun caa ñàkk mu mottali ko mu mottali ko mbir yi noonu lay demee suñ ko doon kii lu yàgg lu gudd gudd la mais dama lay jubloo wax ni la eh, naka jëkk rek loolu mënut ñàkk maanaam saa yu saa yu koo xam ne yàlla daf ko dénk mbir mu ñëw am na koo xam ne mënu caa ñàkk faaw mu faaw mu bokk ci faaw mu gunge ko waaw loolu nag loolu bu ngoon xool ci diggante Seera Faal ak Serigne Touba loolu day daal di ñëw xam nga tey li ngay wax rep histoire dañ koy répété mais tey boo xoolee tey na nga xool Seera waajuram bu jigéen mu tudd ah, ah, Seynabou mm-hmm. waajuram bu góor Ahmadou Fall waaw léegi ñaari tur yooyu xool leen ci lislaam waaw ah, Zeynab ak Ahmad <laughs> waaw mais ñaari tur yooyu ci lislaam kon kon kii ñi bëgg a yi mooy mooy maanaam waxuma la moom waaye dafay fekk ay maam ay ay waajuram ak i maamam maanaam sax ci lislaam ah, nekk ci mu ñëw moo tax si mbiram ku ci am leen looy xamoo parce que nit da ngay seet li ko jiitu ngir boobu ngir moom gën a leer ci yow da xam li ko jiitu moom laa lay wax ah, waaw léegi léegi aw tur tur tur tur du caaxaan parce que tur kenn da ko dul jëggaane ci yooyu waaw kon yooyu da ngay xool maanaam ci càllale gi kon nag loolu laa lay wax ne la mbir yooyu dafay nekk nag jekk suñu borom mos ta jóg di def loolu xam ne am na loo xam sax day mën naa baati ne ba mu ëpp nga xam ne mën na ma mën na maa mën na maa ëpp doole man du mu buñ ko waxee man na ma tiim ba du ma ko man a xam mais ci saayir si rek pour ñu man koo xam mooy wane ni daal ku mu mën a doon yàlla am cër bu mu la jox nga war a wàcc ñëw doxal mission boobu faw mu am koo xam ni fun la tuddee dinañ ko tudd ndax dafa am loo xam ci biir mi sa biir mission ci la da ca am mission bu mu war a bu mu a dox ndax nit waaw da caa bokk ndax am na loo xam nit doomu aadama dafa jig boppam da koo jige am na loo xam mënu koo wax ci moom keneen ni ñëw wax ko mhm. loolu mooy mooy misaalum seere fa misaal rek waaw waaw mooy loo jur tudde ma waaw loo am jox ma waaw bu ma la wooyee bàyyil saw sant wuyul sama sant. waaw bu ma toogee kaw toogal ci suuf. waaw soo amee sa yittey bopp na nga ko fajee sa samay soxla boo ko dégg ko faj. Mm-hmm. nekkal ci kër gi. Mm-hmm. nekkal ci naaj may ci kër mm-hmm. kon mun ko wax kenn. koo mu dem bala. waaw loo loolu daf may dugal si comme ni mu toppee ni mu toppee sëriñ bi. ci ci ci taarix. ndax mosuñ ko ni ni mel maam toppin bi ni mu ko toppee li sëñ Mamour wax nga xamante ni jël léppam jox ko ndax mos naa am si taarix. fu ko Cheikh Ibrahima jëlee. waaw xam nga xam nga boo demee ci Mawaahibu moo tax roy lu lu lu jaral seet la roy mm-hmm. eh, boo demee ci Mawaahibu bu am na bayru Sëñ Tuubaa andi ndax roy bi tax bi ñuy wax waxtu ne day lëkkoo ko jub xidni tiddaa siddi ni tiddaa siddi niq tiddaa bilaa anaa yi gis nga jub dafa am ñaari safaan borom xam dañ ni moy lu mënta and bo demee ci tawxid dala kay wax ya yi nga xam ne mustaxilaat yi sunu borom ak li nga xam moy Fau beni yi mooy la ñaari sofan moy lu mënta and faaw ben bi ne fa ben ba du fa nek hmm. tay mu melni amut ah, parce que mëno nyari, ñaar yi hmm. so jógoon baye nga tok mo loolu moy ñaaru sofan léegi nak nak jup ak deung hmm. dafa nek ñaari sofan parce que jub bala muy ñëw faaw dëng jóge fa. ba pare waaw dëgg la ñoom ñaar mënuñoo ànd mënuñoo ànd. Mhm. te neexati daa yàlla fegal ma ak dëng. Mhm. parce que dëng gi faw mu jóge ba noppi ba noppi si di ni ti daa a jub gi door a parce que ñaari <laughs> ndox nag ñaari safaan ñaar ñaari safaan nag kenn mënu leen a boole. war nga maanaam xoolal bi muy indi baatub jub bi. Mhm. Eh, baatub dëng bi la nii yàlla fegal ma feg fegal ma. ak dëng waaye dolli ma mhm. ak jub kon li baat bu mujj bi day wan ni kon ak dëng nekk foo woon mhm. ndax dolli ma la wax lu ñuy doll lu ne dafaa nekkoon <laughs> siddi ni ci daa la wax <laughs> ah, waaw léegi nag mu doo ñëw siddi neq ci daa dolli ma ak roy loolu mooy lan ah. xam nga dox mu ni dolli ma ak roy xam nañ li rab bi ca ca bopp xas dëgga mhm. xëyri mu rab bi qad ramma qalbi bil iqtidaai cant naa yàlla ak cant xamdan li rabbi da ko def ma foolu mutlax mun a xamitu xamdan li rabbi la woon xamitu ju du ci xaj wooyu day ëpp mu dagg xamitu ju da bàyyi ko def def ko ma foolu mutlax xamdan boo koy fii da nga naa da nga indi xamitu ja sant naa ak cant loolu mooy ma foolu mutlax ci ci naxwu léegi cant naa ak cant li rabbi ñeel borom xëyri mu rabbi ki ngën ji aji yar moom mi nga am xat ramma bijji na bijji mooy defar na mhm. xal bi sama xol ci ni mu ko defaree mu ne bil iqtidaay ci sababu baa boobu sababu la bi sababu ci sababu roy yonant bi ci la yàlla defare sama xol ah. kon bu demee ba ci biir andiwaat waat euh, baatu roy comme roy na ci roy yonant bi la yàlla defale xorom kon kon foofu mu waratul wax ni doo dégg mu ni yàlla may ma ak roy déedéet dolli rek lay doon <laughs> waaw si di niq ti daa <coughs> léegi nag mu def lan lu ko lu lu mujj lii bilaa ana i ci lu benn coono loolu mooy lan hmm. li sëñ Mamour juñu na ko kii wéyee ndigal kii joxe ndigal mooy sonn waaye kii wéyee ndigal du sonn hmm. dégg loolu li ma la wax de <laughs> dama ni kii joxe ndigal mooy sonn hmm. waaye kii wéyee ndigal du sonn laaj ma lu tax ko mën a déggee ah. léegi taalib bi bu ñëwee joxe boppam sëriñ bi lan mooy yitteem lu muy taalibe bi jub am li mu bëgg ci yàlla waaw mooy yitteem de loolu rek mooy yitteem suba ak ngoon yaa ngi dégg mm-hmm. kee moom day toog di xaar loolu sax day gudd ma jox la ko ci misaal mu gën a gàtt mm-hmm. docteur bii faj malade bi mm-hmm. moom miy faj mooy sonn waaye ki niy faj du sonn waaw looloo gën a gaaw sax pour ñu mën koo xam parce que comprimé yaa ngi naanal nga naan moom mooy mooy mooy jël ay appareil di fu ne mu dugg ca minute bu ne mu ñëw xool la nangam nangam moom rek mooy sonn noonu noon laa ko mën parce que bu dee ci wàllu kii fet gee day xaw a gudd mais fii laa ki message ba mu leer yaa ngi dégg maanaam tey kii togg mooy sonn waaye kii lekk du sonn dëgg la dëgg la benn par la koy wax loo tax man la kiy joxe ndigal kooku mooy sonn waaye kii wéyee du sonn parce que ah. kii joxe ndigal dala naan defal nangam ba nopp topp nag di la xool boo ko defum loolu tax defoo ko war nga koo def ak nangam nangam mais yow miy def moom da nga ñëw def rek. nga ñëw rek def dëgg la de. ba pare ak lam ca war. waaw waaw moom ak la ci warul ci aju. léegi moo mooy tax ki joxe boppam xam nga moo tax eh, li maanaam moo tax bilaa ana yi ñëw. Mhm. comme roy roy yow li ngay roy mu ngi si mhm. lu ñuy roy lu nekk mook mook tëj ji ñoo yem mook yeesal. Mhm. soo déggee ñu ni diw day yeesal mu jaddit la mu jaddit joo gis am na lu mu fekk. ndax bala ngay yeesal dara xanaa dara dafay nekk ngay door a yeesal. dëgg la wér muy benn benn bi ci topp mooy roy it roy bala nga koy def li dafa li ngay dangay ngay roy li ngay roy dafay nekk <laughs> ñaar yooyu ñooy am bala ngay yeesal dara li ngay faw am lu fi nekk bala ngay roy it faaw am lu fi nekk yaa ngi dégg mhm. léegi nag li ngay roy nag faaw dafay nekk moo tax kon seera bi mu ñëwee moom kii boroom mbir yi mhm. ah jaaroo ci kii jaaroo ci kii jaaroo ci kaa ci borom mbir yi la ñëw boori mbir yi wax ni mu ko bëggee mu ne ca comme da caa nekk nag ba nam ba nam ko bëggee woon mu amee ko ne kon nag léegi keneen ko waaw faaw nga <laughs> dëgg la de loolu leer loolu kay loolu amul ku ne xam nga loolu faaw ñu koy ñu koy ñu koy nangu ci mbiri yoonu yàlla ndax yoonu yàlla moom moo mel noonu yoonu yàlla moom lenn lu nekk eh. kenn ku ne ab cërëm mm-hmm. su fa téeméeri junni nit newoon it mm-hmm. duñ ko teggi Mhm. waaw ab cër sëñ Abdou Lahad Mbacke dañu woon daara joo gis kenn la ñuy gunge hmm? daara joo gis kenn la ñuy gunge sëñ joo gis <laughs> kenn rek la ñuy gunge mën naa ci benn misaal hmm. sëñ Sam Mbaye xam nga daa ci daara la jaar hmm. am na ñu noonu jàngandoo léegi ndax <laughs> waaw mooy loolu daara joo gis kenn la ñuy gunge misaal la waxin la mbir moo ne rek dafa am koo xam ni moom loolu cëram la foo mën a wiir it faaw mënu mënoo ko mënoo ko mënoo ko génn seeram misaal moom lañ ciy joxe ñu mhm. mu gën a leer ci wàllu roy waaw moom dafa ñëw roy roy nag mhm. roy nag léegi nag ay ba eh. xam nga tey yow su ma su ma bëggoon a mhm. eh, dem dëkk ba xaw ma ko te nga mas faa dem eh, da nga naan ja barab sàngam ngay jaar waaw ngay jaar rek waaw dëgg la de nga doon faa dem dëgg la de seera faal beneen dimension la ci ñi xam tasawuf laa wax nit yàlla yi dox di xam xam nga Ibrahima ibn Adham dafa ànd ko ah, taalibeem ñu ñëw war a jéggi ndox mi te amuñu paquet paquet mooy gaal mhm. mun nga ah, nan dem léegi euh, del wax yaa sëy xii rek man may wax yaa rab bi mu teg tànk bi ni yaa rab bi ni teg mu ni mu ni këng ndox mi de dëgër këng taalib bi ni yaa sëy xii rek teg mu dëgër ak ci ñu ànd kii naa yaa rabbi kii naa yaa ba mu yàgg taalibe bi ni waa man ah moom mu ngi woo yàlla te ñu ñëpp ñoo bokk yàlla man ma koy <laughs> xaar ma woo yàlla daan ni yaa rabbi tànk ba naroon tëx mu xool ni ko luy lii mun ko yaa mun ko joti woo fa mun maa fa joti da ngay man mu fa joti ma woo ko yow yow ci man nga yem yemal ci man ma àgg ci moom ki ku ne daa am cër kon ñàkk ah mënta ñàkk boro yi amul bis bu am di tey yàlla mi ko moom moo ko ne bamba moo la moom Cheikh Ibra gisee gu teg ku tedd ki dimension ba mu nekkoon bay wax ak boromam waa xam nga xam nga dafa am dafa am dafa am ci ci ci ci ci tolluwaay eh, nit yàlla yi mm-hmm. li ñuy wax yëg mm-hmm. xam nga da ngay dégg ñu ni mm-hmm. eh, waliyu day diw sàngam bu picc mi sabee mu xam li mu wax ñoom li ñu yëg rek dëgg lay doon <laughs> loolu nag neexut neexut a leer maanaam li ñuy yëg rek loolaa am. allahu akbar maanaam li ñuy yëg rek mooy am. te gis nga yoon wii nga xam ni moom la sëñ bi ñëw génne ko wane ko ñu jaar ci. mais yow xanaa ñi jàng sax eh, xam ni xam nañ taarix histoire yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi xam na ni xam na ni xam na ni mbirum tasawuf soo ko xoolee ay ay ay melokaanam ak i tolluwaayam nekkul loo xam dañoo ñëw rek ñu jékki-jékki rek ñëw rek sëñ bi ñëw rek ni ay mu ngi nii. Mhm. kon day day xam ne loolu naka jekk nit gaay gaay yi baax ci lañ jaaroon. Mhm. te gis nga bu ñëwoon bay bay leeral baatu murit. Mhm. nga xam ne ñi ko ñi nga xam ne ñoo fi jiitu sëñ bi ci saayir ci àdduna ni nga ko doon jëfandikoo ak murit nga xam ne ak murit lu fi yàggal dañ ko fekk fekk. waaye sëñ Tuubaa da di koo xam ni xam nga sëñ bi na nan bàyyi xel ci loolu. du ko du kuy du kuy sos. sëñ Touba du koy sos déedéet loolu loolu andiwu ko fi mm-hmm. li ko fi andi mooy yeesal yeesal dëgg la nee naa la ku yeesal lu nekk koo koo gis muy yeesal la muy am na lu fi nekk muy yeesal mu koy yeesal dëgg la dëgg yaa ngi dégg mm-hmm. léegi nag cër yi nit yàlla yi nin mel xam nga cër yi xam nga fii nag moom euh, ni àdduna tëddee mm-hmm. dafa wuuteeg mbirum malakuut parce que li nga xam ni bët doomu aadama mën na faa àgg pexem doomu aadama mën na fa àgg mais fi bëtam doomu aadama mënut àgg ci xool kooku foofu moom du du du ñeexu ñebbe daal waaw du waaw dëgg fay dox du ñeexu ñebbe léegi comme kenn ku ne dafa am cër cër yi ni mu nekkee yenn saa yàlla day jël ay cër cër yu bari dajale ko jox ko kenn mu téye ko cër yooyu nag kenn ku nekk am na waaye koo xam ne ab cëram ab cëram faw mu ñëw jëlsi ko loolu mooy moom moom ngoog ngay wax ab cëram faaw mu ñëw jël si ko <laughs> parce léegi cër boobu bu ko jël siwul kenn du ko jariñoo te cër bu nu war a jariñoo la te mooy borom ku ñëw da koy wóoy mm-hmm. ku ñëw dina ko wóoy ba agsi ci moom mu génn ko mu dib cëram hmm? léegi nag yooyu soo ko doon xool ci misi misaale àdduna lu yomb yomb la yenn hmm. saa da ñëw fekk kër goo xam ni lu man euh, ñett danoo dan danoo ñëwul ñu tibbaleen ay añ ah, ñu tibbaleen tegale tegale tax ndab yi lañuy tegale ah, soo ñëwee boo ñëwee dan naan ndab la ca suuf ah, boobu mooy sa ndab ñi <laughs> ma woo laal ba ci digg ba ni ma wax loolu mooy ku nekk ak ndabam waaw <laughs> ku nekk añ la rek mais moo tax li moo tax ñun léegi maanaam ndab la ca suuf loolu mooy sab añ soo ñëwee da ngay teggi ndab yooyu jël ba ca suuf eh, te yëpp ay añ la te yëpp ay añ la loolu mooy cër kenn ku ne sa cër ngay teggi <laughs> loolu nag moo tax nitu yàlla yi ñoom noonu lañ mel maanaam kenn ku nekk foo gis ku mën a doon am na fu mu jaar ba am li mu am li a yéeme kat mooy ki débatté moom waaw noonu la waaw déedéet déedéet déedéet loolu loolu loolu ñun hmm. xam nga ñun ñi nga xam ne ñun ay nit yi saayira nii ñun ñooy mel noonu hmm. mais nit yàlla yi amuñu droit contronté moom ni leen yàlla bindee gouvernement bi leen yàlla def ñu ne fi di fi liggéey lu kenn nangu lu kenn bëgg ñëpp ak ci d'accord fii ne bu kenn bëggoon a alak kenn ñëppay d'accord amul contre xam nga oto buy daw wax naa ko ba tàyyi buy avancé benn pneu amul droit arrière. kon kon bu ñëpp bëggoon fal kenn it kenn. ñëppay d'accord maanaam ñoom loolu dañ ko siñente am <laughs> amul amul kii moo tax loolu loo gisee ñuy bañ di di di di ŋàññi nitu yàlla wala di ko di ko di ko doyee wala yooyu loolu lañ ciy bañ parce que ki ki ki nga topp garab bi lu mu rëy rëy rëy kooka bu la bëggee alak ñeppay d'accord mom sax moy jëk d'accord parce que amul droit bañ ah lool seigne touba wax nak ci gannar moy ka pañu won nar ba waaw <laughs> lool leer na tay mom mom la leex manam mom mom ci bokk moy jëk nango amul droit bañ hmm. parce que fi nit manam pono pono dal bo auto bi daw ben pono amul droit arrière suy arrière rek ben pono amul droit eh, dem ci karam arrière rek ñoo bokk jeex na waaw lool dafa am lu leen dekk loo xam ne kenn amul droit sa morom jëm fi nga jëm fi amut. donte cëri donte cëri dama ne rijaar yaa laay yëpp kenn du ci wuteeg moromam. wuute fii la am ci ñun parce que fële sa am maanaam dama damay wax noo xam ne maanaam pour ñu mais yow. loolu xam nga léegi. dama jox benn misaal <laughs> pour mu leer. Hmm. xam nga nee de xam-xam na xamul xamul. waaw léegi <laughs> pour mu leer. léegi conseil conseil de ministre ngeen koy wax. ngeen koy ah, wax yéen. Ah, ah. xam nga ñun. ministre yi nga xamni ñu ngi liggéey ci gouvernement bi mhm. mais bu fekkente ni ñu eh, kenn ku ne ya nga sa kër wotante ak sa morom yàlla ngeen dajé ci jotaay ni ma ngeen di bu ah. kii ni ngeen ko du non nanga mais bis bu xeyé ba dem ba tam président tok ah, <laughs> ah? fofu est-ce que fofu kenn dina wax kenn kan d'accord ma nangam nangam est-ce que est-ce que sañ nan lolu non la non la la man misal li ma wax pour mu gëna lèr ñu man ko xam motax ñi xamul ñom rek ñoy def yenn yi mais nit yàlla nit yàlla ndax ñoom la ñuy dund dafa bokkul ak ñun ñun li ñuy dund ñun. bokkunu dafa mel ni yàlla ak yaar yi bokkut. kon da coow li faaw muy bari coow maanaam li fii la fii la coow li nekk. li noonu li xew xam nga li xew mooy xam nga euh, yàlla euh, lépp ma neex. waaw yàlla ma lépp ma neex xam nga ñaare kuy xuloo. wala ngay merini wala da am lo nakari mm-hmm. ñom nak ci yalla mum dara dara do len fudu nakari mo mm-hmm. tax juyo du meuna am mm-hmm. ndax dégg nga lu ma baax eh, waaw maanaam foofu maanaam mënu faa juyoo ndax juyo mënu fa am ndax lepp neex juyo fo gis rek lu nakari ñew na deug la loolu amu fa nak deug la sun borom biram daf da dul yi ñi wax mo tax seigne touba likay ni mu mel koku bu aduna yëpp daje di ko misaal wala di ko wax mën nu koo xam kooku keneen la yaa ngi dégg moo tax Cheikh Fall moom moom xamul ku dul sëñ Touba loolu yàllaa ko def mhm. yàlla mooy joxe cër mbirum mbirum suñu borom la moo tax moo tax moom eh, dimension bi mu doon <laughs> doxee fi ne day demee day dem bàgg foo xam ne fi ne day yow mënu mënu da ngay dem mujj da ngay taxaw ndax doo mën a dem moo tax sëñ sëñ moo tax sëñ sëñ Xaadim mhm. li nga wax ni moom léppam sëñ Touba la mhm. ba mu loo bëgg ma defal mun ko war waral ngir ma sama bërëbët bi ba mu gisatu lu dul yow. waaw nga xamante ni maanaam moom léppam sëñ Tuubaa la. waaw xam nga dama la wax ni la. xam nga eh, dama la wax ni eh, eh, sëñ doon yees loo gisati yaa ko moom. waaw xam nga kuy yeesal. nee naa day am lu mu fekk xam nga nee naa baatu murit bi nii. fi rek sëñ bi fekk. waaw kay. damal ci damal ci téere bi ñu taskaratu awliya. Mm-hmm. Saadu bnu Abdullahi moo wax wax ji may bëgg a wax. xam nga lu mu wax. dane al muridu huwa as suufiyu الذي تصفى من الكدر وامتلا من الفكر وانقطع من البشر واستوى عنه الذهب والبدر كي مانام نيونا سي ادنا لو ياغ تي سيرن بي نيوغول سي زاير دا اي 200 نانغام لا لغي دا فا واخني موريد موي سوفيانكه بيغا خامني dafay sell ci lépp lu lu nëx lu bon fees dell ki xalaat boroomam dog mbindee fi jëm ci yàlla rek ba noppi yemale wurus ak donj suuf gis nga lii moom la suñ tubaa way ci masaalikul jinaan moom la wax ni fa saara saafiya min al kadar mumtala xalb min al fikar munqatan rabbi min al bashar musawiyan dinaara ayna bil madar wax jooju la suñ tubaa wax nii kon kooku day yeesal amna ku ni wax asri saqati ko it ku yag la. xam lu mu wax mom bañ nak la baram mourid sadiq la loon wax mom al mourid sadiq la wax. huwa allazi la yadfu nuru ma'rifati nuru nuura waraihi wala yatakallamu lbaatina fi ilmi yanfadu zahira alkitab wa sunna wala tuhmiluhu lkaramatu ala xaddi maxaarimillah bañ nag ba baata muri saadiq la ñu jëfandikoo moom. asri saxatiyu nee na muri te ñëpp ñu yàgg leen. ñi ñu yàgg ñàgg leen rek <laughs> xam kañ lan mu ni Mouride Sarr yi xam nga mooy kan. muri Sarr yi baatu Mouride Sarr wax de. mu ni yi xam nga mooy kan. mooy ki nga xam ne leeru leeru ngëm yàlla gi ne ci moom da dul joo muy xotti war ma yàlla. déggu li mu déggu wax de. nee leeru ngëm yàlla gi ci moom. ak baatin bi ci moom da dul joo muy xotti war ma yàlla. te kii. ku yàgg-yàgg la mais Serigne tuwaa bi mu ñëwee te jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dafa to am na sufiyanke yu yu dund moom mhm. li ay yi ma bëgg wax may bëgg a wax nii loola loola taxoon mu wàcc ndax yonent bi daan ñëw yenn saa yi fekk lañ ci jàkk ji ay sufiyanke la ñu woon ay ay mutasawwifuna su ko defee bu ñëwee ñoom danaan beru mhm. maanaam bu ñëwee fekk lañ ci jàkk ji di waxtaan ak ñoom ci yàlla bis nag mu ñëw toog di waxtaan ak ñoom ci jàkk ji am ay saxaaba yu ñëw ba jàkk ji fees dell magi saxaaba yi nga xam ne ñenn ñi fekk wanoon badar ñu ay magi saxaaba xam ne ñoom dañoo amoon beneen garaat beneen bu jox bi ñu ñëwee léegi jàkk ji fees nag mhm. amuñu fu ñu toog yonent bi sallallahu alayhi may leen seen magi saxaaba yooyu toog eh. gaa yi gaa yi sëgg comme men men nekk ci oto toog <laughs> menn mag dugg nga sëgg nga sëgg waaw léegi dama moo mujj danaa diw jógal may may diw mu toog mhm. xam ne ay tur la doon jaar diw jógal may diw mu tok neena na ba ñooñu jóg legi nak mag ñi tok legi gaay yi tàmbali na da ngay sét li rek xana ñëpp yemuñu rek ñëpp ñi tong nangam nangam yàlla wacc ay ay bi mu koy wacc bo yonent mu ngi tok mu tax sayifone yi yank yi ngay dégg ni tay ta ñu yoonu yoonu muri mooy yoonu sufiyanke la mu ni ya yaa ayyuha alladina amanu ida qila lakum tafassaxu fi l majlis fafsaxu yafsaxillahu lakum wa ida qila nchuzu fanchuzu yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat wallahu bima taamaluuna xabir xam nga dama koy firi baat par baat xam nga dani yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm ida qila bu nu waxee fee leen lakkum ñeel leen ni tafasaxoo yaatal leen jóg leen yaatal ko bu ngeen defoon faf saxu tafasaxoo fi majlis ngeen yaatal ko ci jataay bi kon bu boobaa faf saxu bu ngeen ko defoon yaatal li ne jóg leen ngeen jóg yaatal seen mag yi saxaaba yi kon yaftaxi laahu lakum yàlla yaatal leen wa ida qila lakum wa ida qila susoo bu ñu leen nee jóg leen fasaasa fan susoo ngeen jóg ngir li nu ndigal wéyee ndigal kon bu ngeen ko defoon ngeen xam yarfau laahu alladina amanu minkum kon yéen ñi def loolu nag gëm yàlla na leen yëkkati waaye na ngeen xam ni walladina uutul ilma darajaat ñii ñoo leen ëpp daraja ci yàlla ñoom yàlla yëkkati seen daraja ba noppi su ngeen leen yaataloon nag jóg nag kon yàlla yëkkati seen daraja yéen wallaahi bi maa tax ma doon xabiir yàlla moo dañ kumpa dañ kumpa xam nga da ngeen di naan diw daal dañ kumpa déedéet nit bañul kumpa yàlla rek moo dañ kumpa nit daa bañ kumpa daa bañ kumpa daa bañ lu kumpa waaye faaw faaw dañ kumpa wute kay waaye faaw am lu ko ump yàlla rek la kenn dara umpul léegi nag loolu laa jub jubloo wax léegi yooyu ma la wax lu tax Sëñ Tuubaa ni woon yéen mag ñi saalibe yi eh, saxaba yi ñooy seen bàyyi ci lislaam looloo tax ni kon lu am murit di def ab saaba def na ko eh. waaye da def da ngay def lislaam dafa nekk loo xam ni eh, dangay ngay ñëw rek sos dara teg ni lii la lii la bëgg ko dugal ci biir lislaam yàlla nangu lu mu ci maanoon da nga koy fekk am droit def ko boo ko fekkul amoo droit def ko bokku ci inna diinana mabniyun ala naqlin laa ala munasabatil laa xanaa kon moo taxoon seex bi na lu loolu mooy loolu loolu mooy loolu. Cheikh Ibrahima Fall daf ne woon maay yoonu baa sëñ Bamba bi maay royukaay bi. ku ma ku ma weesu. weesu ku ma jéggi weesu nga dig ba ku agsiwul maa ngi nii. Ah, loolu kay loolu kay. lu leer la. xam nga léegi mooy mooy. mooy ku bëgg ci li sëñ Bamba am. waaw mën Ibrahima Fall ni ma def ngay def. Mm-hmm. waaw loolu kay loolu mm-hmm. wa nahaaran an yaj'alani rabbi muridan walakin aba faj'alani cheikhal muridin sëñ Tuubaa moo ne moo ne guddeeg bëccëg maa ngi koy dugg xalwa di ñaan sama borom def moom murid yàlla ne ko maa bañ murid yooyu sa ginnaaw la ñuy topp yaay nekk seen sëriñ ndax dégg jooju wax te man nitu laylan wa nahaaran an yajalani rabbi muridan walakin aba fa jaala nii cheikh al muridin sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nee na guddeeg bëccëg maa ngi yà yàlla ne ma maa bañ ñoom murid yooyu sa ginnaaw la topp yaay seen kooku mooy borom mbir mi <laughs> kii yaa ngi dégg uh-huh. léegi nag kon su boobaa léegi nag murid googu yoon yu war a jaar ba mën caa jariñu Cheikh Ibra ñëw wane ko ah loolu kay kon ku ko rëyul toppoo ko foo jëm du mën a nekk di nga nekk dama leen xoolal fii nii yii ñuy wax yëpp fii nii nii ñoom ñi nekkoon ak Sëñ Tuubaa mag ñëpp amuñu ci ñëpp d'accord xam na loolu kenn donte kenn ku ne am na sa cër bopp loolu Sëñ Tuubaa moo yaatoo noonu mm-hmm. kenn ku ne tey soo ci waxtaan waxtaanoon mbiram mën ngaa jàpp lii li Sëñ Tuubaa yor lépp ngi ci moom mais kenn ku ne nag daa nangul moroomam ci cër bi mu yor. waaw waaw ndax dégg nga ma bu baax te fii nag tey bu ngeen duggoon ci mag ñi toppoon suñ tubaa ak kenn ku ne nim dañ jëflante ak Seera Faal da xam ne loola ah, xam nga man euh, maa ngi koy kii Baye Baara Faal muy netti bis nee na <laughs> nee na sëñ Modou Xabbaan Mbàkke mu sëñ Modou moo ko wax ni ko nee na euh, bi mu jàngee ba ñëw ne sëñ Modou ba daka ne dama nuyu ji sënd yaay Seera Faal dañ la sënd yaay Seera Faal sax la ko wax ne mu ñëwee <laughs> fekk mu ngi fekk seera jàll ab xaalis bari ci kanamam noonu di tibb noonu def ci ci ci poos bi noonu ne mu ñëw nuyu ko ni ko euh, faal mu ni ko ah, kooku mun nga mën a moo du xabaan mu sëñ mun ma jàng woon ñëw mun ma naa ñëw naa ñëw mun naa ñëw nuyu sama dajaay mais mu ni ah, mu sëñ mun ma mbàkke ngom waaye ngom ngom la koy santale waaw <laughs> ne tibb tibb tibb ci xaalis bi dana la mu ngi tibb naa di def ci jiba jël naa ko ah, ngom waay ngom mais mun ko mën a maanaam sëñ mu numbe mu sëñ mën na sëñ mu xaar mu sëñ mu numbe <laughs> mun ngaa xam nga xam nañ mbàkke la sant ah. waaye ngom la koy sant la <laughs> mais bi mu waxtaan moom ba noppi nag léegi mu ñaanal ko mm-hmm. ndekete ngom jooju am na lu mu koy wax sëñ sëñ Modou Xabaan bi mu ñëwee sëñ mu numbe mu ngi fekk ku toog mun mun ko sëñ mu numbe ni ko nuyul kii kii ngom la sant ni ko dëkk boobu ñuy wax ngomeen moo mooy borom dëkk ba ànd la moom mu yóbbu la fa ngeen nga nuyee nee na ba mu demee dëkk ku mu nuyu ngom <laughs> xam nga mooy dama wax yooyu ay mbir la yoo xam ni ah, waaw yooyu maanaam noonu la demee maanaam yooyu nag laa wax mm-hmm. léegi nag yooyu nag yooyu maanaam mbir mi ñoom danoo danoo déggoonte nangoolante kenn ku ne te dama ne waaw seex yi itam ku ci mës a jóge ci daara ji wàcc sa baay ba la fi Seex Ibrahima waaw xam nga sëñ Baara Jeen yi mm-hmm. waaw loolu ko sëñ defoon ci Seex Ibrahima waaw waaw xam nga si sëñ Baara wax ci mag ñi jaxasoo gi ñu jaxasoo xam naa sax moom dina ci digg ndax mel na ne moom hmm. ku miin si kër sëñ Issa surtout ndànd <laughs> waaw nga xam te man dégg naa lu dul ganaar bu ko sëñ Issa masaane defar ci këram seexaru la yónnee fàlle rek man daan ne jamono yi fay kii sax booba eh, kër Seydou Fall googu hmm. sees bi mu daan toog mu nga fa faloon mu nga fa woon hmm. waaw waaw booba ci penc mi ni am na genn kii kadd gu fa nekkoon a na benn seng fa daajoon nee naan moo ko fa daajoon waaw ay bagages lañu waaye ñu fa woon jamono yooyu waaye dama xam nga eh, xaw a yàgg ba ba 92 ak yooyu mais mais ah, li mën a <laughs> loolu dafa yàgg <laughs> booba a ngi waxtaane sëñ bi déet boobu de xam yooyu yooyu dama maanaam loolu maanaam wax la nii la hmm. léegi nag suñu ñëwee nag hmm. ci seen tolluwaay ñoom hmm. parce que loolu faaw ñu bàyyi ci xel waaw mm-hmm. Mm-hmm. xam nga xam nga tolluwaay nitu yàlla dafa rëy rëy goo xam ni bala nga ko woon a xam sax mm-hmm. nga nga nga dem nga dem gëstu tuuti ci téere yi nitu yàlla yi maanaam ñu wax seen histoire ak seen tolluwaay ñaare ak seeni doxalin seen doxalin yi ñuy doxee yaa ngi dégg seeni doxalin parce que mën mënoon mënoon mënoon sofaanoo ñoom ñaar maanaam nitu yàlla yi mën na sofaanoo nii. ci ci ci ci waaw ci sofaanoo ci doxalin. Mm-hmm. te fekk na wutawuñ ci biir. Eh. Hmm? maa la wax loolu maanaam mën na sofaanoo ci ci doxalin te wutawuñ ci biir. Mm-hmm. waaw loolu day ndax xam nga xam nga doomu aadama ñun damay wax ni bakkan roo mm. xol benn la. bakkan ak xol. waaw xam nga leen wutale lëkkaloo a boole ñaar ñu bokk fuñ waaw maanaam kii la rek maanaam tolluwaayu nit ki la xam nga li pour nga dégg li may wax nit ki bu faatoo ndax dina noyeeti xol bi dina yëgati lan moo dem roogi rek moo dem bàyyee fa jëmm ja ah. te lépp ngi ci biir kon kon li ma leen di benn la kon kon loolu leer na mm-hmm. <laughs> tolluwaayu nit ki nag mu am xàjjaloo mais du xott wii mm. du lii ndax lii maanaam <laughs> maanaam teg ci kaw la rek loolu ab kii la maanaam léegi nag loolu nag la li ñuy wax bakken li tax ñu naa bakken ci nit loolu mooy yàqu wala mu defaru hmm. su boobaa nag loola day am day feebar ak a wér ñu war koo faj day feebar ak ay laago yu ne ci moom hmm. léegi laago yooyu nag ki ka mën a faj ah, bokkul ak nga ñëw mu lay jox bind ay ordonnance ak nangam nangam hmm. moo tax gi nga nitu yàlla eh, nitu kuy defare dañ ko dañ daf misaal yàlla da ko indi ci misaalum kii maanaam doctor rek ñoo boo ko bëggee leeral nit ñi xam ko xool ko ci mbirum docteur rek ñooy am ci saayir kee saayir si la kii mooy baatin bi ndax da ngay ñëw feebar docteur bi xool la xool xam sa feebar xam li la war a faj mm. parce que bu xamee la war a faj te xamul sa feebar doo wér su xamee sa feebar te xamul la war a faj doo wér nitu yàlla noonu la mel day xam sa feebar day xam sa feebar sa laago sa laago gënee ci yow lee mu xam ko woon xam li lay faj moo tax nag kenn ku ne nag. boo ñëwee ni lay tarbiyaa ni lay tarbiyaa moo tax ñuy wuutante ci kaw. dëgg la waaw loolu tax ñuy wuutante te fekk na ci biir ñoo yam. ñoo ñoo ñoo ñoo du ñu wuute ñoom mais ci kaw faaw ñu wuute mënut a ñàkk. mbiri cër yi noonu lay demee. cër yi noonu lay demee. cër yi du mën na duñ tolloo. loolu du ci dara. moo da ngay ñu gis kii ñëw si daara ji du yàgg dara gis kii ñëw si daara ji xaw see déedéet loolu du si dara maanaam cëri yi mhm. cëri yi moom xam nga cëri yàlla it nag <laughs> yàlla muntu fii ni nii xool ko ci nawet ah, da ngay ne Dakar du taw nga dem nga génn fi dem cees mu nit ñi muy taw ñaari fan yoo xam ni te Dakar tawul loolu yàlla sax ki nga ni muy séddalee ci saayir si mhm. ñu gis ko ñii de da ngay nekk ko am waaw kii du am mhm. kii di am kii bari la kii nangam noonu cëri yi ni mel ni saayir si ni noonu la cëri nit yàlla yi mel duñ tollo nak wa duñ tollo manam mënono bok ben diwan ci cër yi duñ tollo xam nga maqama ak daraja mënono bok ben maqama maqaama duñ tollo daraja xam nga motax mbir yi day wuté légui yow ma jox la misal nit bu duggé armée suñ tuddé militaire duñ ko tudd hmm. mais garaat yi ñoo yam ha <laughs> ah, jeex na <laughs> nak duggu ar armée nak moy maqama bi so duggé am bu ñuy lim lim quartier gi ren lay mais bu lim garaat yi <laughs> <laughs> man ah, nah, <laughs> mën nah, eh. na lay noonu la mën na bokk maxaaba te duñ bokk garaat si gaal yi yàlla yi waaw maam Cheikh dong ko sëñ dong ko xam mooy loolu rek ndax xam nga loh it loolu ay mbir la ni neexut a expliqué mais mënees naa mënees naa junju maanaam mhm. oh, ci doxalin ba nga mën a xam mooy li gën a jafeñ ci nitu yàlla mooy am cër ba nopp nëbb ko nëbb ko loolu mm-hmm. mm. bokk na ci li gën a jafeñ ndax ndab saa yu feesee mu neex ko mu bañ koo neex dina am la tuur cin boo ko doon boo ko tegoon <laughs> waaw waaw cin boo ko tegoon muy muy bax mm. nga ub ko nga muy bax rek di dem ah, waaw day tuuru mu tuur mu neex mu naqari dina tuuru moom nag ñoom dañoo nekk ndab lu ñu tëj cin lu ñu tëj muy bax ba noppi ñu fexe ba du tuuru nga xam ne kon liy rogalaat rek fi mu ne nii. moom eh. loolu de dara ci ah, ñoom. dara mooy lii lépp. moom maa lay wax moo tax man la ñoom loolu mooy li gën a jafeñ. Mm-hmm. loolu du du lu yomb. Mm-hmm. cër yooyu ñuy yor nag cër yooyu nag dafa dafa te it nag amu ci kenn ci ñoom koo xam cër cër bi la yàlla jox àdduna tax na koo jox amul. déedéet la mm-hmm. rek. waaw lii xoolal lii xoolal xoolal ñun ñoo fi nekkee waaye ñoom xoolal. yëgul nun sax loolu am na bokk li gën a gàtt bu dee cëri àdduna yii yii ñuy gis nii yëgul nun sax ni am na ñoom ñoom fële fële la nuy xool bisu ko sëñ bi ko wax mu denc daf na denc ci la waaw denc waaw waaw ñoom li li ñuy gis yomal xiyaam bu ñu ñëw ñu ni waajaa ngi nan xaar waa ji ba mu ñëw moo taxoon mënu ko ku àgg ci yàlla tey àggale la waaw waaw mhm. waaw sëñ tubaa moom xam nga sëñ tubaa nag moom yàlla dafa dajale mbir yi jox ko jox ko mu téye si loxo waaw moom daal mooy séddale waaw xam nga moom wax ni mhm. am na ci loo danaa ko wax ak koo te duma ko def ak ñoom. am na ci loo danaa ko wax ak koo te duma ko def ak ñoom am ci loo danaa ko def ak ñoo te duma ko wax ak koo yàgg sama kër ne taxul nga xam la fa ne sama mbir maa yor sama bopp kenn attunu ko. allahu dama mbirum sëñ Tuubaa kenn attunu ko. man maa la wax loolu moom rek moo ko attan. ne yàgg sama kër taxul nga xam la fa ne sama mbir kenn attunu ko maa ko yor sama bopp. moo tax ci moom kooku <laughs> sëñ bi moom kay lu waaye di wax moom boo gis ñoom taxawal rek <laughs> waaw man maa la wax loolu billaahi waaw sëñ Maodo tey tey man damaa joom na fi mu ne nii mu wax lool man kay xanaa damaa yaakaar ne fi ne damay déglu sëñ Xaadim ndax fi ne daa am fu mu aj na ko nag waaw lool sax na ko de waaw li mbir maa ngi ci kenn sëñ dafa wax ni sama mbir ak niti gaa yi baax yi xam nga nu mu mel mm-hmm. dama meñ ñuy rëbb ñu ni kenn ko nek rab ya ngay bëgg jam yor nga fitra yor ngay palam mm-hmm. neena man kënu la yor xajul ci rëbb kan? kënu kenn du ko rëbbe <laughs> mm. ne kënu la yor xajul ci rëbb waaw loolu suñ wax mu ni man bun <laughs> moo tax fu waay di wiiri wiiri it moo tax na Cheikh Ibra li xew waaw moo xam li xew de waaw xam nga mooy loolu loolu gis ga gis-gis ba mm-hmm. ak ak ak laka xam nga mm-hmm. foofu foofu foofu sëñ bi loolu du neex neexut a lijjanti de du mbir mën a lijjanti de maanaam fii ne xam nga tey xam nga ñun ñi ci saayir ni yenn saa da ngay dox yow man ngaa dox ba for jamaa doo ko xam doo ko xam dëgg la man bis bi ma ko jëkkee wan bis bi ma jëkkee wan ni ma lii jamaa la ma xool ko man li ma wérti woon mooy bu ma doxoon ba for ko dama koy sànni jamaa waaw ba ma ko ban beneen dama ni nu ko andi wan mako ni lima ni ma ni ma xomat ay nangami million la jax man suma jimi bop mo fekkon dox doxona naa ko ci mbedd xale la kay la kay may <laughs> mais manam mo tax ci nga gis nga fi ni seigne touba ni mel man seigne touba dimension bi ko bi mu am ak tolway bi mu am kuko meuna weur ba xamni mu ngi ni mudah bi loolu loolu moo tax <laughs> moo tax mu ne amaana ku ku toog Cheikh Bamba toog nga di ko xool mu di la te gisu gisuloo ko ma maa ko xool waaw waaw <laughs> xam nga loolu loolu loolu loolu saa seen taxul nga di ko laal déedéet waaw tey mm. waaw seen jant ndax mm. ndax ndax xam nga seen jant moom nga di ko ndax bëri na ko Cheikh Bamba nga di ko mm-hmm. mu di la te gisoo ko gisuloo ko na mm-hmm. ndax baatin ba mooy sébbalu mm-hmm. bis bu tawee bul njëkk xam nga baane li kulli mën la ko wilaaya mm-hmm. kaw nii la xaari xibaraay aaya mm-hmm. nee na koom tomb ci yàlla ku ma doon xam nga duma sama morom nee bu gaa baaxee toogee taxawee bu ma xool biir soo ma xoolee doo ma gis ne da ngay téen mm-hmm. sëñ Tuubaa ne boo ma bëgg gis bu gaa yi baaxee teewee téenal maa ngi seen kaw bu ne boo boo xoolee seen biir doo ma gis faaw nga téen xam nga dara bu la tiimee <laughs> boo xoolee fi gaa yi ne doo ko gis da ngay faaw nga tiim boo teenee nga koy seen ndax dalaa tiim waaw man nag moom Cheikh Ibrahima Fall yéem na ma loolu. Mm-hmm. moo tax moom xoolal ni mu kennale woon Sëñ Tuubaa. Mm-hmm. dand ko yaa xam sëriñ bi yaa xereñ. waaw daawoo werenteegub sëriñ. Mm-hmm. waaw bàjj bi yaa bëri ngërëm. waaye waa na yàgg nga nax. waaw <laughs> xam nga xam nga léegi léegi léegi moom. mission bi bi ko woon. waaw mission bi. ok loolu loolu nag moom ma baax a baax. mission bi ko andi woon. mooy wane sëñ bi ñu jariñu ci moom. ngir ñu jariñu si. Mhm. loolu nag ki koy def moo tax bi mu ñëwee dafa fexe ban classé ko. ban ko waaw. dëgg la bu ko deful li mu bëgg def du ko def. xam nga loolu fa loolu faaw faaw gaa yi bàyyi ci xel. beru gi waaw xam nga léegi boo gisee am na nit yàlla yoo xam ne tey da ngay dox muy fekk leen ci mbedd yi. Mhm. ñu yor ay saako teg nii waaw teg ay saako toog. Mhm. kooku bu fekkoon ne daa yoroon këram. di sol ay mbaseem ak i baxaam. yor ak njaboot ànd ak nit ñi di programme ba nañu wax ko. Mhm. lan mu bëgg a liggéey du ko def. doo ko def <laughs> faaw nga ko ba nga xam yow doo doo doo ko. doo ko doo ko boole ci ci lay féex nag mën a def li muy def. soo gisee nit di tëju. bëgg def dara teju xam ne bu teju li lim bëgg du ko def. bëgg ñu classé ka rek nga xamni ne moom day xam naa nee na fekk lay genn nga xam ne oh, ma temps man na dem sama yoon. fek na moom looloo ko arrangé moom dem bo ngay dem yow bàyyi ka fi. moom moy di dim moy di dim ndax ci lépp bëgg def lañu bëgg ndax. bu gaa ñu melaw mu abbon la daal moom la lay wax nak deug la ku bëgg wané dara. Mhm. ku bo bëggee wané dara do melni ni loola. dëgg la waaw. déggoo li ma wax de. <laughs> Ah, soo bëggee wane dara mhm. do melni ni loola. dëgg la parce que boo meleen loola man man nga ko wane ñu di bëgg a wane loolu ñu xool la muy moom. waaw dëgg la dëgg la xaw nga làqatu. waaw léegi ma jox la ci saayir si sax mu fi sëñ Tuubaa danoo gis mu sol mbuubam mu sol mbub mu weex Seera Faal ñëw sol mbub mu ñuul waaw. yaa ngi dégg damay joxe misaal rek pour ñu gën a leer. la Baye Ibrahima Thiam wax naan ay da nga daan dànd. waaw nee na sëñ bi ne fële lay nekk waaw mu ni mu ni liñ jaaxal nag ci mbiram mooy bu mu saa ñëw sëñ lu sëñ wax du ko dégg bu nee kër seex lu sëñ wax mu dégg ko Baye Borom Thiam loolu wax de. moo ko wax de. Baye Borom Thiam moo ni moo ni sunu de bu demee kër sëñ Bamba lu sëñ Bamba wax du ko dégg waaye nee na bu ñëwee kër seex lu sëñ Bamba wax mu dégg ko Baye Borom Thiam wax loolu. Eh. tey Baye Ibrahima Thiam moo wax loolu. Mm-hmm. parce que Baye Ibrahima Thiam def naa ku wax mbirum Cheikh Rafa na la ko Baye jox Cheikh. waaw 1930 bi moom Cheikh wàcce la ma sa tax. ni fanaan naa moom mu bari loolu laa lay wax kon nag léegi nee la booy wane dara da ngay a ni moom. moo taxoon mu làqatoowee. te diir boobu sax yàggul. déedéet wane li muy wane rek déedéet li ngay wane. dëgg la gaa yi kaay la ñu ñëw mu la daa am lu mu leen woon gaa yi ñëw. mu nga ne loolu du yàgg. dëgg la di di bu gàtt mënut a yàgg. moo tax parce que parce que parce que yow boo nu woowoon tey bëgg noo wan dara. naan da maa bëgg ngeen taxaw ba suba mu wan leen ko dañuy dem suñu yoon. moo tax mu nekkee moo mu nekkee ba mu nekkee ndara wane na dëgg dëgg nag moom kim kim kim doon. waaw xam nga nag waaw xam nga ñoom ñoom ni ñuy <laughs> iya, étape iya. par étape étape par étape étape par étape la motax yoy bi muy door bi mu ñëwee señ bi gis nga ni melo mhm. bi mu déñé ba am ngërëm gis nga nim doon doxé mhm. wayé nak lim doon doxé yépp nak programme bo ñëw rek programme señ señ Tuubaa ngay fekk mhm. pro amul won programme programme bépp programme señ cheikh ibrahim waaw amul won programme dé li sama programme bam nang nak lepp lo gis mu néwon ci rek so ñëwee señ bamba rek la fa nekkal moo tax professeur Murtada bu bu Genève ñu koy ziar bu baax a baax fekk nañ ko si Genève di ko ziar mos nañu wax ni ñu Cheikh Ibrahima moom nii rek ngeen koy jàppee Cheikh Ibrahima mi doon wër Cheikh Ibrahima mi doon wut mm. ak Cheikh Ibrahima mi doon yaatal mooy mi doon wane rek nga xamante ni dundam yëpp ñetti état bi la mm. waaw ba mu wër benn la si état bam mm. ba mu doon wut beneen la si e, état bam ba mu doon yaatalit beneen la si état mooy li nga naan seen dund gi bu si nekk état am na loo xam ne nag maanaam yàgg fekke moo tax nga mooy tax nga xam ko wala nga man ko mm-hmm. dafa am waaw yàgg fekke xam nga ruu mën nay baagante àdduna xam nga loolu moom ñi mu ta say foo ne xam nañ loolu mm-hmm. ruu mën nay baagante dama ko dikk mm-hmm. da xam nañ ko xam nga ne mu mel ni jiwu gerte da ngay bay ren wut ci aw jiw denc di nga ko bay aw jiw denc déwén nga bayaat ko mu saxaat du gerte ah, wenn jiw wi rek moo moo doon daaw di rek <laughs> loo <laughs> gën a neex loo koy cohérent da ngaa xamul dara ya, suñu borom moo mel noonu loolu moom dara suñu borom léegi dama leen ni maanaam dafa am lu ñuy wax murit am lu ñuy wax muraad am lu ñuy wax marit marit nag moom mooy safaan ba murit mooy ku ku ku koo xam daan namm pays ba muraad nag mooy ku pays bi namm hmm? ki pays ki pays bokkul ki pays bi bëggal boppam moo tax sëñ to ant muraad man nee na man <laughs> yàlla mooy sama murad. allahu akbar te sëñ Tuubaa kenn du moom dégg nga jooju wax ant muraad yi xam nga gaa yi moom pay bi leen namal boppam mu ni man nag déedéet man pay bi déedéet man yàlla yàlla mooy sama muraad borom waaw moo tax dafa am ñoo xam nag ci gaa yi na pay waaw dafa am nag ñoo xam ni ay muraad lanu seere da caa bokk muraad nag mooy ki ñooñ nag ñi ñii doon mooy loolu la. <laughs> nag moom xam nga fi moom gën a bàyyi faal la yaa ngi junj rek. dëgg la dañuy junj ba léegi kenn kenn kenn kenn du mën a yeggale nag dañuy junj rek. di ko def ay xel <laughs> ak loo xam ne ku ku yàggut a fekkee. du ko mën li nga wax kawe na la lu leer la. ko kay lu leer la ndax yaakaar nga bu noppee doon fatoo moom. waaw ah loolu kay a ñàkk moom kooku moom parce que Mourad Mourad moom loolu ñi ñi yaa ngi ñi xam te suuf xam na loolu. Mourad mooy koo xam ne ñett ndax murid ak Mourad ñoo wute murid mooy ko nam pays ba muraad nag mooy ko pays ba nam ñëpp ci ñooñ nag nii lañuy def alee waaw waaw ndax ndax ndax am na loo xam ku yàgg fekke moo ko man waaw boo yàgg wute fekke doo ko man am na loo xam yàgg fekke moo ko man mhm. waaye boo yàggute fekke doo ko man maanaam yombute bu mu am ba ba ba yaatal ba maanaam yombal ñëpp maanaam roy gi daal ni mu leen ko wanee ni mu leere ah, ku ni roy ku ni roy bu yëf yi bu jafee jafe ñun lay roye Cheikh Ibrahima ay yoon jamono. ah loolu loolu loolu loolu maanaam li ngay def li ngay def xam nga nit mu ngi mel xam nga li ma lay wax nii. Hmm. yow fi ne eh, sa sa doom boo ko amoon tey fekk benn Mamour mi nekk mécanicien. Hmm. Hmm. wala mu nekk tailleur ngeen ko jàngalal ma ko. mais est-ce que bis bi mu ñëwee da ngay jël xam-xam bépp day jël xam-xam bépp xëpp ko ko. ndànk ndànk la première yi de ay kale lay lan koy yónni. mu xam mu tàmbalee xam kale kale kale dix ak kale douze ak kale. <laughs> dëgg la nàngam <laughs> yaa ngi dégg yenn saa yi ñu yónni ko pièce mu ni ko pièce bi ni la tudd mu tàmbalee xam pièce yi. noonu la koy toppee di toppee ba gis gaa yi monté bu nu wekkee jox ko mu raxas. ci raxas du tàmb du monté sax. raxas day def. di topp ko di ko topp ba benn bis nga ñëw fekk maanaam ñu jox ko oto mu ngay liggéey noonu la demee kon loolu mooy roy ndax li li ngay roy nit ki waxtu bu la bu bëggee boo bëggee li muy roy mu xam ko comme misaal ko kuy jàngale métier kiy jàngale métier nag waxtu wu nekk fi xa fi muy toll di mën a xam noonu nga koy joxe muy ànd ak moom di dox ba keroog mu mu beru noonu la loolu mooy roy mm-hmm. moo tax li mu doon wane mun xam nga dama la ne tey bu dee day wane sëñ bi mais nee naa yow boo ma woon tey boo ma woon ni gars yi ñëw la ñuy ñëw nga ne daa am lu leen di wat hmm. ñëpp taxaw nga ne xaar ne ba suba nañ fi taxaw ba suba day dem suñu yoon loolu bu gaawul bu gaawul gars yi dañuy dem hmm. moo tax du yàgg bàyyi ram ci am nee woon na bis toog nanu mooy li nga wax ne comme du yàgg hmm. yoon wu jëkk bi nee doona toog nee na fee toog am na eh, benn eh, ñu toog ni nee na mu gis ay taaliba yu liggéey luy liggéey mu ne ah mu ni doom na daan waxee noonu mu yegg ngeen ci yàlla waaye leeru leen yegg ngeen <laughs> waaw mu ne ah yéen li ngeen liggéey sax liggéeyuma ko man ñaar at ak genn waar rek laa liggéey suñ bàmba sama cër yëpp bañ <laughs> bi mu waxee loolu nee na am na benn géwél bu toog bu fa toogoon nee na bi ne ka faal am na day bis ma ànd ak sama baay ñu war aw fas ñuy dem ci ab dëkk di wayaani ne ñu rom la ci àll bi ngay curki curki mooy kon takki tànk mu bëgg a dox xam nga day tëb def nii defaat waaw mais mun ko ah doom la waaye dem naa mujj mënatuma ko dama mujjoon daraam waaw ah, gis nga hmm. kon du kon kon yoon wu jëkk wi hmm. yoon wu jëkk wi du du du yàgg hmm. parce que daa li muy wane moom na gaa yi ñëw mu wan leen ko mu jeex kenn ko ne necc la nga nekk moom mu necc li mu moo tax yoon woowu du nekk lu yàgg daa mel ne lam ah. diggee woon moom ah. moo jeex waa waaw Cheikh Ibrahima mënut a teg waaw noonu xam nga loolu loolu waaw maam nit yàlla yi comme nga wax ne dañuy del si ay jamono di ñëw ay yoon te Cheikh Ibra waxoon na ko ànd naag sëñ Baba yoon am na ci yoon woo xam sax Cheikh Ibra nee na bi ma ñëwee jamono nee na ñoora la wàcc nee na fekk ñu maral maam Cheikh nee ma des fa di ab diig est-ce xam nga xam nga nit yàlla yi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom leen leen lañ leen lañuy def xam nga xam nga moom kaa su sëñ Mamour yi nga xam ne moom ñoom te kii waaye daal nit yàlla yi moom luñ la wax ci ñoom lu ko raw a ngi ci ñoom. Mm-hmm. waaw lu la wax ci ñoom lu ko raw a ngi ci ñoom. daal moom roy ak romb dinaa la ci wax tuuti rek. pour nga mën koo xam pour nga mën a dégg lool. Mm-hmm. am benn uh, wëliyu woo xam ni dañuy wax wëliyu. soo amee fukk at ak juróom-ñett. Uh, fukki fukki weer ak juróom-ñett. fukki mm-hmm. weer ak juróom-ñett laa wax de waxuma at. waxuma ñet na fukki weer at ak juroom ñet fukki wër ak juroom ñet su amé fukki wër ak juroom ñett fukki weer ak juroom ñet mm-hmm. ñaata at la ben at bu tek lan bu tek juroom wër bu tek wa non la wa bu tek juroom ben wër at ak genn wàll rek waaw at ak juróom benn weer at ak genn wàll li ko yàllay xamal mm-hmm. mu xam ko ak mm-hmm. limi xam bu ad bu wa aduna waa dajoy mu leen ko yax du ko mën du leen ko mën leral mm limi xam manam wali wi nga xam am na fukki weer ak juroom ñett rek limi xam su àdduna yëpp dajaloo mën leen ko leral nga xam ni bobu mu ngi mu ngi doon dama ni danaka bébé soo ko yónnee bitig ba boo ko yónnee suukar warka mën naa dem jënd tangal fat doo xam sugar suukar ak warka loolu loolu mbir la xam nga li ñi gis ci kaw ak li nii ci bir bokku xam nga doom adam tay tay ba yow xam nga tay eh, bara nit ki nit ki nit ki doore doole ji mi am deug la doole ji mi am di yëkkati sakku ci tek ana doole ja foo ko gis ah, yow jëmm ji ngay gis rek mais doon lii mooy doole ji li yëkkati saako bi doo li yëkkati saako bi doole ji ko yëkkati doo ko gis yow jëmm ji ngay gis loxo yi ngay gis muy yëkk jógoo ko nangam fu ne mu bàcc bàcc saako ba mais tey bu la ne ana doole ji du la ne lii du mënta jël dooleem ne lii mooy doole ji ma yëkkatee saako bi kartan nga yëkkati saako ba mu ngi ci jëmm ji waaye moom doo ko gis noonu laa la mën a misaal li ma lay wax li li ngay séen ci kaw ak lay ne ci biir da dul bokk ndax doomu aadama moom boo gisee naa ñëpp yam ci doomu aadama la ab yonant ak kudul yonant bu xiifee bu lekkul du regg su maree bu naanul du màndi mhm. su gëmmentoo bu tëddul bu nelawul euh, du faju mhm. su wéree de bu fajul du wér mhm. loolu ñëpp ci yem loolu ak yaram la ak doomu aadama la mais li li tax ñuy wax mbir yi loolu du yaram loolu ñëpp ci bokk yem lool laa lay wax moo tax man ne kii yëkkat saako ceeb de kàddu gàddu fu ne mu jëmee ko fa soo ko ne woon ana doole ji nga ko yëkkatee du la doole jaa ngi nii te doole jaa ngi ci moom loolu laa lay wax na ci nit yàlla yi moo tax moo tax moo tax dafa am euh, benn wëli mag boo xam ne dafa mës a ñëw ci dëkk jëm jub ci teen bi am koo xam ne yaay ba nga ko boot te mooy borom wilaaya la. gone la waaye xam nga ru yëpp a maase nag na nga xam loolu. waaw <laughs> fii ne leer bi juddu tey xanaa mooy li ki waxoon rek dama ni <laughs> dama ni leer bi juddu tey jii. Hmm. maamaatam magu ko. waaw dëgg la da koo jëkk ñëw ci àdduna rek. waaye ru yëpp a maase. nan xam nag loolu de. Hmm. <laughs> te nit moom bu ñuy wax ru gaa tax. moo tax ma wax la loolu. léegi nag xale bi xam na ni góor gi di ñëw wëlli la. waaw ku si nekk waxtu wi nga waaw waxtu wa nañ waaw mhm. léegi xam na ni ki góor gi wala yi tax xam na ni kii boo muytul su ñëwee mën naa ñaan waa waajuram ñu dox te bu ko bu ko mayee ndox bu ko naanee soo muytul mën naa wàññi ci wilaayam moom xale bi hmm. tàmbalee gàmp yuuxu def kii rek yaay ji eh yam nin ma ngaaw ma dem ndax xamado bi dafa mel dafa ñëwul góor gi di ñëw <laughs> fekk na ñoom ñu ngi jëflante ci ci wilaaya te xam te ndey ji xamul gaa yi xamul mu da mu départ dem ba mu ñëwee sotti ndox ndox mu góor gu extérieur ne waaye ana jigéen soxna si ma gisoon fii mu bot doon nangam ñun ko ah moom yan na dabam ba dem de mu topp ko bi muy agsi fekk na mu sotti ndox mi ba bay génnaat kër gi. Eh. mu ni ko ah man maa ngi bëggoon na ma kii ndox mu ni ko ah te te noo ñëw tem nga dem teen bak nangam laayee laayee ba kii mu dem ñuy dem ba jamono. Hmm. xale boobu màgg na fi ba am tolluwaay bis nag. góor ga jaarat fa ñew jë jawal ci mom xale bi seen ko mu ñew mu jox nuyu ko and ak mom dalal ko ñew ak fi ci genn njowaan gu mu tegon fu ne ka tok ci góor gi ni jak njowaan gi fek njowaan gi bu ci tok bu ci toog rek gi dag ta bu dagge rek mu këf limi yor lay <laughs> ce que bi mu gisee mu xool mu ni ko mu ni ko mun to mun góor gi ñu càkk mom moom yaa mu ni nii loxo bi rek njowaan gi tip dag mun ko kudd yow sax maa ko sut mun ko ah la ma bëggoon a def laa doon fayu am nga sens <laughs> te ba muy gone <laughs> waaw moom laa lay wax yooyu yooyu nit yàlla yi dañuy mel noonu yooyu yooyu ak ak yàlla mhm. loolu dara ci ñoom waaye dama lay xamal la cër yi ñu yor rëy na rëy goo xam ni moom yow mal xiyaam rek lay leer waaye kenn mënu ko waxtaan déedéet déedéet maanaam ndax loolu boo ko yee àdduna ngànk la mhm. waaw waaw noo xam nga nit it xam nga nit yi da koy da koy wax danga koy wax loo xam ni xam nga nit ñi logique la ñuy doxee hmm. ah, xel ni xel ma na ko jàpp ak nangam ak nangam te yooyu du mbirum du mbir mbir mbir yooyu. Hmm. ak sama fi hmm. xam nga nit ki tey tey boo waxee boo boo koy leeral. ba far ba lu ko ëpp doole da nga koy lëntal. Eh, dëgg la moo tax boo indi misaal da nga indi misaal ci saayir yi rek. mu leer xam nga tey ba noppi te ñoom yàlla da leen may dañuy dégg waxi. yépp xam nga dafa am eh, benn wëli woo xam ni dafa ne ci dëkk bi léegi menn muus ne ci këram ñu toog benn bis ñu ni suba dañu war a gasaat teen bi te moom mooy borom dëkk bi te moom doomam la war la doom doom ji taaw bi moom noonu moo war moo war a moom war a dugg teen bi pour ñu pour ñu mm-hmm. gasaat ko léegi bis boobu nag tombeeg muus mii ne woon ci kër gi mm-hmm. meneen muus ñëw fa waaw waaw muus moo xam danoo xamante mm-hmm. mm. mu jaar fa mun ko man dama fay jaaroon rek damay dem ak ñoom ñu yàlla bind day bu ñu yor dañ koy xam mu ni ko waaw yow ah tee ngaa toog ndax suba de yàlla dogal na moom sunu kër gi deret war na fee tuuru mun kaa mu ni ko ndax sama waa ji ne boroom kër gi nii eh, doom ji suba dana war a wàtti teen bi te moom moom la war a yoo moom war moo war a dugg ci teen bi te buñ koy génnee buum gi dana dagg mu delluwaat ci bi day faatu subaa nagam wi lay rey toogal lekk ci yàpp wi koo xoolal mu koy dégg de ñoom ñaar ñu ngi wax loolu ni toq ci nopp bi mu ne ah baax na ba suba suba jot mu ñu taw bi jërul ngay di ñu ànd ñu dem ñu yóbbu jarbaat bi ñu gas teen bi ñëwaat dara xewul mu déggaat sawaay ni ko waaye sawaay yow li dem na mun ko waaye déet do taw bi la kii waaye amul solo bàyyi suba nag bi dina ko yeewi mu dem dana dem ci àll bi dina daje weneen nag ñu xeex nag woowu bu ko jamee bu ñëwee fi dina ko rey <laughs> mu wax mu ni ko ah waaw mu toogaat mu dem yeew nag wax nag nga génn sax ca ngoon nga nag mun ko nag bàyyi ma dem mun am mu ni ko waaw ndax sa ba waa ji daa am xam-xam mun ko li ma la wax dara du si deñ taabe waroon a dem demut te dee faaw mu am nag wi waroon naa dee tey demut mu téye ko dee gi ci moom lay ñëw. mus mi wax ko waaw waa mu jaaxle. docteur eh. xanaa xamul lu mu mën a faj du faj boppam. waaw lu mu mën a faj <laughs> ah fànq na deewul nag. am doom ji lay wax. Eh. docteur lu mu mën a faj faj. saa yu wéree dee keneen a koy faj waaye du faj boppam. wax man maa la wax loolu moo tax ak wilaaya neexul. waaw maa la wax loolu de. ndax da ngay gis lu ñëw nga xam ko boo ci jéemee dara mën naa mën mën naa nekk waaye bu dalee sa kaw dangay ngay toog di xool. allahu akbar. wax loolu. mbaadu. leer na. mi toogaat waaw muus toog. moom nag mu jaaxle dem ci wëli wi nga xam ne moom moo ko moo ko moo ko defaroon. Mhm. wax ko mun ko waaw tax man la moo tax noonu la demee boo bàyyi woon bàyyi mbir mu dox. sa yoon du ci nekk waaw mun ko hmm? faata gi faaw moom. Kell fi la faatu. kon ak wilaya mun mun na mun na. mun nañ ko defaree. waaw ah. ah déet xanaa xamoon ni fii ne fi ne cër boo gis. Mhm. Ah, ya ya ñoo ko wax lan bi ñuy tàmbali de. <laughs> sëñ Mamour cuq ci nga cuq ci ma ñëw ma ñëw cuq ci kay nga ne maanaam da ngay nitu yàlla ko toog cër yëpp cër yu bari dajee ci moom. waaw cër yooyu nag. faaw gaa yi ñëw séddale ko. ndax ndax ndax soo gisee. Mm. man mbiri Cheikh Ibrahima dafa maa yéemaat si beneen wet. Mm-hmm. ndax ñi nga xamante ne ñoom lañu jàpp ne ñoo gën a si saa naqaree defar. Mhm. maanaam léeg-léeg maa Maodo dana naan ak ah, ceddo moom. Eh, maanaam ñu reer ba suur. Mhm. yow nga takk saw fas dugg si dëkk. faagaagal ñëpp faagaagal ñëpp nga xamante ni ñooñu. saa yu suñu ñëwaan sëñ Tuubaa ñu si ëpp si ñoom bokk. maam Cheikh Ibrahima Fall la leen doon yóbbu. mu defar leen ba mujj gi dañuy doon ak wilaay yi mujj di ne ci waaw xam nga loolu nag loolu nag moom. moom loolu moom xam nga ndox ndox lu mu tilim tilim dana mën dana mën a dindi tilim. dana mën a dindi waaw. ndab lu mu tilim tilim bu ndab li taqee boo ko ñëwee boo ci raxasee ti eh, la taqoon dañ xanaa ke beneen taq cee nekk waaye la taqoon moom dañ na. dëgg yàlla noonu la mel. xam nga ñoom xam nga damay wax ni ñoom ñoom sëriñ bi daana xare ni maaye fi ni ñoom xam tey maanaam maanaam yàlla yàlla moo mel noonu nag. yàlla moom mooy koo xam ni ay mbiram xaaral ma wax la ka pour mu gën a leer sax pour mu gën a leer ci yow. xam nga tey boo doxoon fii ci euh, bëccëg nga dox fekk ñaari gone yoo xam ni ñeental la am xale bu góor bu jigéen ñuy def ñuy def jëf joo xam ni bu ko mag defoon am bàkkaar mhm. lu tax ñoom du am nu bàkkaar te te ñu ngi koy def yàlla dañu toppul dara mhm. ki yàlla topp dara moom lay seet ku ñëw ci moom mun lijjanti mbiram mais ku yàlla toppul dara ku ñëw ci moom du lijjanti mbiram ma léegi loolu sax gàtt na kaay ma gën la koo leeralaat. Cheikh Bada xam nga yow tey boo doo boo fekkante ni da nga yoroon sa doom yor ko nii ñettaat ñeentaat nga yor ko walla mu ànd ak moom walla nga muy dox nga jàpp ci loxo bi nga ñë ngay wàcc ngay taxaw fii arrêté benn taxi ni ko dakaar laa jëm. mun na deux mille francs nga dugg xale bi dugg ndax dana fay. bu doon kaar yi ñuy dagg tige sax du dagg tige. waaw lu tax <laughs> lu tax tam tam mu dugg ci kaar bi nii ñëpp. yow mi mu ànd moo tax. léegi am na ci nit yàlla yi noonu mel. <laughs> est <laughs> kay leer na. Hmm? ah. bàyyi taal a ngay fi mu ne nii ndeysaan. mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi nee na waxtaan wi kawe na kawe woo xamante suñu bàyyi taal ñu ngi koy ziar bu baax a baax sama nijaay Moussa Sey mm, Moussa di ko ziar bu baax a baax ndeysaan mm. euh, soxna Ndeye faatu Wade ca di ko ziar sëñ Aliou Wade Seydou Bamba Diop maa gis na mi ngi topp jotaay bi wallaay <laughs> euh, soxna Kumba Wade mm. euh, soxna Fatou Diom ca Italie ñu ngi koy ziar bu baax moom du madame kan di ko ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla soxna sëñ lay Wade Baye Fall mbokk yi ñu ngi leen di ziar ñu ngi topp jotaay bi toppin woo xamante ni moom daal xam naa ni waxtaan wi tey moom. moo tax kon moom ñi ñu a yaakaaree ni ñii moom seenu tarbiya nañ ko. waaw maanaam moom dañoo dañuy rek bootu daanaka. waaw waaw déet xam nga nag xam nga nag loolu nag cër yi la. ci cër yi la waaw ci cër yi la. Mm. xam nga cër yi nag ni mu rek. noonu la yi fi mel xam mm. comme Cheikh Aïssa Dieng dañuy faral di ko nettali maanaam euh, euh, li naan euh, ma janax bu mbedd sax xajoowu ko dañ koy xaral di ne naa ni ñu koy nettalee waaye maam Cheikh Ibra Fall gëlëm gu sax bu ñëw mu wataale waaw xam nga loolu loolu loolu loolu loolu ay loolu loolu moom loolu ci ay waxi wolof la waaw waxi wolof la loolu mm-hmm. loolu nu eh, ma la waxoon ni la kenn ku nekk dafa am sa cërub bopp ak sa doxalin bopp sa Aïssa Dieng wax naan duma du ma dem ba yomoon xeexam di la yegg sama taalibe lu ci mën a xew fii laa lay fóote ba nga set mm-hmm. ndax du ma sëñ Tuubaa du taxaw yomoon xeexam sama benn taalibe taq fii laa koy defaree waaw loolu la wax de moo tax moo tax képp kuy taalibim jenne bu yow nga def loo xam mm. lu mën boo defee njaaxum bala nga fiy jógee di nga di nga daj lu mburu ma dajul ci taal ba ndax nee du lay ëllëg yomoon xeexam ab taalibe cay sëñ Isaa da ngay seet loolu kon loolu loolu loolu boobu tolluwaay Hmm? kenn ku ne dafa am kii boppam rek loolu loolu loolu maanaam nit yàlla ñoo mel noonu maanaam fii ne mooy li ma la wax rek moo tax maanaam tey it boo xoolee tey tey xam nga sëñ tubaa tey bi mu fi nekkee mag ñi mag ñii nga seen sëñ tubaa defar leen booba eh, amoon a seen taalibe bari woon nañ lool waaw léegi sëñ bi nga xam ni moom mooy lépp nga dajoo ci moom boroom cër yooyu yëpp ñëw teggi seenu cër léegi ña toppaat ñooña kon seeni cër daa nekkaat dañoo nekkaat ci ñoom ah loolu kay leer bu doon loolu kay kon kay ku ñëw ci sëñ bi lay yem kenn ko ne sëb cër daa nekk fii ne say rafaal ñi seen cër ñëpp nekk ci ñoom faw ñu ñëw ci moom ci Issa Diène ñi seen i cër nekk ci ñoom ñëpp faw ñu ñëw ci moom sëñ mënu ma noom keneen keneen noonu te boobu sëñ Tuubaa ngi fi de waaw waaw boobu de sëñ Tuubaa ah, moom laa lay wax nag loolu sëñ sëñ bee mel noonu xam nga li ñuy wax dënale dënale xam nga ko dégg nga li gën a yéem sax suñu xaadim mooy sëñ bi ci boppam mm-hmm. am na kuñ ko mës indil ci njaarim mm-hmm. ku tudd Senghane Fatma Bourga Ndiaye mm-hmm. Senghane Fatma ku ñu wax séeréli ak njàppile ko muy ceddo bu mag ko indee jox ko ko indi ko ndax moom ba dafa judd sëlmaxa nee na bàyyi Ibrahima Mbóoj la ko Ibrahima Mbóoj la ko ku tedd ki tuddee jox ko sëñ Mourou Moustapha Fall nga xam ne booba Cheikh Ibrahima fi waaye dafa wóolu sëñ Mourou Moustapha Fall jox ko ko ndax nee na daa judd sëlmaxa bàyyam na man du ma jur seen maxa dama koy rey bàjjanam na ko bu ko rey am na sëriñ bu may dégg njaarim loo ko jox mu téye ko léegi mhm. bi ñu ko indee njaarim sëñ bi noonu ko bàjj bàyyam tudde mhm. ñu ne cinquante fan mhm. na man jànguma woon sama bët néew ñëw na <laughs> am kuy wax wala fali sëñ Mbay Jaxate yooyu sëñ Moussa Fall na ko man sëñ Mbay Jaxate daf may soññ mos nga am ku ma koy jàngal mun ne ko mën de say bët neexut saam xel waaye kon naa ko mokkal jàng mu a ko danaa ko def ci yow nee na guddi jot mu ñëw ba sama bunt néeg na ana Ibrahima Mbodj mën a bërit sëñ ko ci ma daanu mu romb ma jàll nee na ma xëyee mboolem wolofali sëñ Bay Jaxate laa taxaw di ma tari génn la ma ko sol ko sol xam nga léegi la ngay wax Seera Fall a ngi fi waaw mu ñëw ñu jox ko ñu kooku ñu jël jox sañ sëñ Modou Moustapha léegi ab cëram daane sëñ Modou Moustapha ah ñoom soo ñëwee ku si nekk sa cër fi ku doon rek maanaam dana la koy jox daal sëñ Tuubaa noonu la meloon sëñ Tuubaa mujj gi nii maanaam boo ñëwee da da ngay ñëw rek jébbal mu booy laa kenn waaye man da sëñ Xaadim mm. gi ne ne sëñ Tuubaa da ko daa woo di ko liggéeyloo mm. bu ko Seex Ibra yéegee danaan mm. ku xamoon na soo juree doom mu lay gannaaw sa sa sab sëriñ jar na ma jur doom waaw non xam nga xam nga nitu yàlla day day fiir day fiir waaw ndax day bëgg dara ba xam nga li maanaam ñoom seen bëgg mm-hmm. dañuy fiire am na wenn wàllu woo xam ne damaa bëgg yàlla ba nga xam ni bi mu yeggee ci yàlla dañuy bëggut dama koo fiire bëggutuma kenn xamul su ma sañoon kenn du xamante yàlla ndax fiire gi mu ko fiire maanaam noonu noonu loolu mbiru mbiru yooyu nag maanaam nit mbiru nit yàlla yi la dëgg la waaw maanaam da moom seen ak bëgg dafay ànd ak fiir fiir du bokkul ak soxor de dëgg la waaw soxor de fiir laa wax mm-hmm. maanaam dañ koy bëgg ba duñ ko yemal ak dara mm-hmm. maanaam dara buñ sañoon maanaam ndax ñun koy bëgg dañuy jàpp leen lu ko bëggaat mën naa rax ndax tolluwaay bi mm-hmm. dañ naan kii ni mu mel ci ma tamit leneen keneen ku bëggaan a mel ni moom mën na koo rax <laughs> ah waaye loolu da xanaa seexewul moom kenn la ndax ku toll ni sëñ Mourou Moustapha Fall <laughs> mais loolu loolu loolu gën a tut feli nii maanaam ñoom ah. tey tey gis nga gis nga gis nga gis nga ñoom ni ñuy mel mm-hmm. xam nga yow tey eh, Bada eh, da ngay am gan goo fonk mm-hmm. sa soxna am na bon mm-hmm. mais eh, ngan kaa kii fonk naa ko fonk koo xam ni sama sañoon ngeen toggal ko togg waañ wa sa soxna du fa jóg waaw dëgg la mm-hmm. dootul ko bàyyi dama ne bàyyi du ko bàyyi du ko bàyyi bon bi fonk da ko maanaam loolu mooy siire ci nitu yàlla dëgg la maanaam kii togg gi man man rek maa ci sama bopp kii du ma ko bàyyeeg bon bi. bon bi sax mën na ko moo xam waaye waaye moom du ko bàyyeeg moom. waaw ah, dëgg la de loolu loolu mooy fiir doom ñoom. Eh, dañuy dañuy bëgg ba fiir. sëñ bi waxtu yi jeex na takk ba teg yi waxtu sax moom daal ah, xam naa ni kii wax dëgg la. <laughs> ah yëf yi moom daa gaaw di léegi tët tët tët. Mamadou Mangone Cissé ndeysaan eh, taalibe di di di di sama sama sama doomu ndey di sama lépp wax dëgg yàlla di di ñu topp saa su ne ba ngoone maa ngi koy ziar bu baax a baax di di doomi ndey sëñ Moustapha Ndiaye Al di ko ziar bu baax a baax moom ak euh, mbokk yi ñu nekkal foofu ñoom suñ Bamba saw Xaadim saw di ko ziar bu baax ak sëñ euh, soxna Sale Mati Niang ñu ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla seenu taxawaay foofu ca mbaaw sëñ Xaadim daal émission bi sëñ sëñ sëñ Mamour man fi mu ne nii moom daf maa yëm noo sëñ Xaadim da kaa aja aja aja ba ci kaw ah déet man kay man kay man kay dama ko wàcc ndax man ne wax yëpp ay misaal waaw ndax xamal nañu cëru cëru cëru nitu yàlla yi da ko wute waaye sëñ Tuubaa ñi mu àndal kenn du ñoom kenn du ñoom eh, te Cheikh Ibrahima li ko indi woon maanaam aku gone la nah, manam ko xamanteni mom moom suñu borom moo ko tegtal nga xamanteni dafa mhm. am cëru moom ba nopi ñew am lu mu àndeek ma jox la ma jox la benn benn misaal pour pour xama waxtu jall na mu ngi ko waaye seigneur Assane salaam waaw sëñ Assane waaw góor yàlla ko xam nga ay doom mu ngi dégg ñu may dégg sëñ Saliou seigneur adam sëñ Adama ñu sonu Mariam sonu Mariam Mariam salaam mu mu ngi fi mu ngi leen di mom kuy top télévision ak radio bi ak soxna Mariam doomam la ak soxna Ndey ndax xam na benn doomam boo xam bi may dem Màkka mm-hmm. ñu àndoon soxna Ndey muy seen soxna Zeynabu mm-hmm. eh, sëñ bi sa eh, nee na bi mu am fukkat ak ñaar la ko sëñ ni di nga di nga dem Màkka ñaari yoon mm-hmm. <laughs> waaw ne man nga ne waaye bii mooy ban moom mooy yoon wu njëkk man ko kon wu ñaar ñooy àndaat incha allah <laughs> léegi nag léegi nag léegi nag moom eh, bi mu nekkee ndaw dama lay jox ci mbirum Seera Faal mi nga doon wax sànq mm. ak ak kenn ko nekk ci dafa daan def ay xar baax hmm. ndax yaayam da loolu so sëñ Saaru Salaam sëñ Saaru Salaam nettali na ko ndax sëñ Saaru moo ko doon kii yaa hmm. yaa yow waaye maama moo ko doon ne dañ ka da ka daan yor gis séréer ni kii jinne la nangam nangam yóbbu ko ci benn barab xaw ma guy la xaw ma ni buñ ko fa defee lañ koy def rek gars yi jinne dañ ko jël ban ko fa yóbboo moo leen fi jiituwaat ah. léegi nag léegi nag ñu jaaxle ci nag ni ko kii nag moom am na la yoon ne ñu jël ko ñun nan dem jaareem sëñ sëñ mag bi ñoon di ko sëñ Tuubaa sëñ bi ni ni leen bu ngeen demee boole naa seera faam hmm? ñu indi ko seera faam ban ñëwee ni ko kii de suñu doom ñu doon jaaxal ñu indi ko dañuy def ay mbir yoo xam daal ñun xamuñu lu mu doon léegi nag ñu yóbbu ko sëñ bi mu boolanoo yow sëñ bi seera ni teg leen ko ci lal bi ñu teg ko sëñ seera di ko xool ñu daal yii maa ngi koy door a xàmmee maa ngi koy a xàmmee <laughs> maa ngi koy <laughs> xam nga kon maa ngi koy xàmmee mooy kon yàggoon nañu mooy li ma doon wax am na yeneen yu mu ci tegaat sax yu yu yu xar baaxee waaw mooy yi ma la wax léegi mm-hmm. nag yooyu nag laa lay wax ne la ñoom noonu lañ mel te it nag li gën a yéeme mm-hmm. danoon kenn kenn ku ne sëb cër mm-hmm. dañ koy nangu xam nga ki kii ab liir la bu toog ab gone la bu toog mu wax ci moom yée kéemaan goo xam ni gu jëgg dayalo waaw mu ah, kii man ko xam xamee man moom ci pays yàlla yàgg nañ fa lool gis nga te ñuy jàpp nañ sax kii euh, comme xam nga ñun Sénégal yi ñuy def boo boo nekkee xale yi tàmbale jome da naan jinne la wala nangam nangam da ngay seet loolu moom loolu laa lay wax nag ñoo tax ñoom waaye suñu xadim kon waxtaane nitu yàlla jafe na non waxtaane nitu yàlla yombul bara xam nga lu tax yombul maanaam déedéet xam nga Sénégal moom kooku moom xam nga kii moom euh, beneen kii la beneen dimension la kooku moom nit yàlla yëpp nangul nañ ko loolu tey beneen dimension la parce que loolu moom am xam naa loolu sëñ Mamour moo ko ñemee da wax waxaat man moom <laughs> moo ko wax waaw daal xam naa ne daal moom ah. <laughs> xam naa ne daal moom daal moom daal moom li may gis daal mooy nan ko sopp daal seera waaw ku ñuy sopp la waaw te nangul ko ku ñuy sopp la ku ñuy nangul ku ñuy nangul mm-hmm. te bañ am benn sikki sàkk xol nag waxuma wax làmmañ ci làmmañ ko dama ko jëlee waxumay mm. waxam sikki sàkk xalaat xalaat rek loolu sikki sàkk sa diggante moom ku ko moytuwul xam mooy li naar waxoon man shakka fii Ibrahima waaw kay sikki sàkk laa wax sàkk sa xol ci mbiram mm-hmm. ku ko moytuwul xam man maa la wax loolu ku ko moytuwul xam waaw mm-hmm. ku ko moytuwul xam mm. sikki sàkk rek laa wax Hmm? ah charia nee na boo jàpp noonu sikki sàkk toj naag tojul lu mu wax ah, mais jàpp na ne toj na waaw ah, jeex ah, na ne fuqahaa dañ ni sikki sàkk goo gis dëgg lañ koy jàppe moo tax waxuma la xa waxuma la wax di weddi waaye wax xalaat di sikki sàkk rek ku ko moytul xam ku ni nangul la di ko bëgg te nag ku xam dara nangul ko moom. ah déet xam dara ñëpp ni ñu ko ah, waxee sànq. waaw ku xam ku xanaa ñi xamul te sax fi ne fii ne yow boo boo duggoon ci ay ay jëfam xam naa sax jàll na boo duggoon ci ay jëfam. ak ak doxalinam. si saayir si ak si saayir si nii. Mm-hmm. kooku kooku loo koy bañee sax. wallaahi wallaahi gisuma loo koy bañee. ku jëkk woon jamono lool. laabir lool nag si ah. jikko yi nii rek jikko yi saayir si nii rek maanaam mm. kéemaan la woon daal wax dëgg yàlla. xam nga lii rek photo bi rek wane nag wooyee fam ak nit ñi. waaw ah. ñëpp taxaw ndeysaan ci ginnaaw mbooloo mi dégg naa ku lewet la woon. ah kuy kuy yóbbaale kuy de day yóbbaale gars yi bakk tubaab bi ñaanee sax. dégg naa sëñ Modou Lo mooy moo ko ne Fall boo ko nanguwul boo la a lay disane. tax sëñ Mamour bëgg photo lool. waaw man damay photo fi ne bala may pare bi dinaa photo. waaw may bañ ko ma disane moo tax. allahu akbar gars yi boo paree ngeen photo ma dégg nga. tey waaw sëñ Xaadim yan kaddu ngay tëjee sunu maam Cheikh Ibrahima. waaw kaddu yi may tëjee daal ci moom. Mm. mooy yi ma waxoon sànq rek. Mm-hmm. ku ni nangul la hmm, te bëgg ko. Mm-hmm. man de man de sama jëmi bopp laay wax ku ne nag sëñ naa wax mbirum boppam. man ci moom laay natte am murit. waaw ci maam Cheikh xam nga xam nga yi mu yi mu mënee ak ni mu feeñal maanaam yow boo boo sa ngëm ngëm. Mm-hmm. ci moom ci foofu la ko mën a xoolee. dëgg Cheikh Fall moom man ci man fii ne moom su ma déggee kenn koo xam yaa ngi am lenn la jëkk sàkk ci moom jeexal naa ci yow man maa wax loolu kooku man maa ko wax ñëpp di ma dégg soo saa ma saa yu ma gisee nga am lenn looy sëkk sàkk ci moom jeexal naa ci yow waxatuma say wax keneen laay waxe waxam waaye du yow man maa la wax loolu tey tey waaw sëñ Mamour loolu de moom mooy kon waaw sëñ Xaadim jërëjëfati jërëjëfati sax la ñuy wax yow saay soo teewee si jotaay bi waxuma la si jotaay bi sax ak jotaay bu mu mën di doon maanaam ku ci nekk teewlu gi ngay teewlu ndax maanaam xam bi ni mu leeree macha allah. borom cër la kéemaan mu ngoog. waaw loolu moom àgg nga si kon alhamdulilah rabbil alamin. waaw tàmbali bi rek. ma ma man nag maa ngi ci moom. waaw waaw yow moom. waaw maa maa ngi ci moom de wax dëgg yàlla. waaw loolu moom moom. ngi siyaar baax suñu Cheikh Mbinda. waaw waaw sama sëriñ bi ndeysaan jamono bi mu mu ngi tool ya. ah ndeysaan di ñaan suñu borom gën kaa kattanoo ah, te gën kaa doon. ak sëñ Fallou sëñ Fallou mu sëñ mu sëñ Modou Aminta. mu mu ah, ngi nañ la neexal sëñ Xaadim. ah ñoom moom foo tuddee sëñ Fallou ak sëñ. yee sëñ Fallou ak sëñ Moussa moom. <laughs> ñoom sëñ Ndongo Fall ak sëñ sëñ sëñ sëñ Ndongo Fall ak <laughs> ñoom fa la ñuy ziar ndeysaan ñoom si wàllu lañ xam ndeysaan moom lañ xam waaye seen xaadim ñu ngi lay ah, jaajëfal bu baax a baax maanaam na gis nga murit bi di signalé Badara moom moom xam naa ñëpp mën nañoo seede waaye ma maa mën a seede te waat jofeel gën ah, loolu moom maanaam loolu moom biir réew meeg bitim réew ak bu ñu wéeteeg bu ñu beroo ci lalak bu ñu toggee ba xaaju guddeeg benn kaddu lay wax ci làmmiñam hmm. maanaam mooy yow moom <laughs> amul sago sëñ ki wàll waaw moom xam naa ne moom sëñ xaadim xam na ko waaye de sax kenn mënu kaa wax am na loo xam ne kay moom moom wax allah kenn ñi ma ko wax waaye moom waaye xam naa yu bare bare bare loo xam ne ci ay jotaay yu ñuy toog waaye yow moom am na foom la teg wér ndax dama am dama am dimbal rek waaw waaw loolu rek léegi nag man li ma xam mooy te gëm ko mooy sëñ xaadim cërub Cheikh Ibrahima Fall la ndax Laay Cheikh Ndiaye. waaw ah, dëgg la waaye moom boobu ah, doy sëkk rek ci sa wayjur Cheikh Ibrahima lañ ko dippee. Mm. sëñ Tuubaa ko yar. waaw mm. ah. mm. oh, maa ngi maa ngi sëñ naa ko wax sax de ndax waaye juram. Mm-hmm. maa toog mu ni ma. xam nga comme ndongol sow li mu nekkoon ah. Kayar nee na Cheikh Ibra bu ko gisoon dafa ne ko ah kooku ndongol sawar li mm. ndongol la ko doon woowee mm. ah. ak yeneen jëflante yu bëri yoo xamante ne waxtu yi do kooku danañ si ah. ñëw bés moo tax noo ngi lay ziar sa borom dool incha allah ñaan sa borom dool sa wér ak sa mm. kattan ndax dëgg moom waxtaan wi moom ñun yóbbu nga ñu fu sore sore sore moo tax daanaka dañ doon nostu jotaay bi xam-xam dañu yitte lool rawatina suñu waay kii rek la te mu ndax ba nu yàlla sàkk xam naa ne Cheikh Ibrahima <laughs> loolu xam naa ko man naa ñun moom Cheikh a fi baax ah, kii ndax kii boobutoon duñu am kon nag ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy santaat di ko gërëmaat gannaaw bi mu ñi boolee ci boppam ba kun na jàkk xelam dem ci jëmm mm-hmm. sa sa xel dem ci jëmm mm-hmm. ndax du duñ ci dara mm-hmm. defaluñ ko dara defaluñ yàlla dara itam lu tax ñuy tudd tudd Cheikh Ibrahima Fall waaye ndimbalam la moom moo ñu dimbalil boppam ci mbiram ndax moom ci boole nga bokk ci ci génn nga génn ci biti ndax moom yëf yi ci loxo bi Cheikh wax nga ko léegi ndax mooy code bi wax nga ko léegi ne man am murit dama koy nattu ci Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra mooy sa nattukaay mm. te it nag Cheikh Ibra Fall moo waxoon ne mm. ku ma jéggi weesu nga diggu ak suul maa ngi si dam ma ko wax waaw ku ma jéggi weesu nga te ku ak suul maa mm-hmm. waaw daal wax ne ku bëgg ci lii sëñ Bamba am man Ibrahima Fall li man da koy def mm-hmm. daanaa doom na ngeen ma xool bu baax ne bokkuma ak sëriñ si nga xam ne ëllëg yomal xiyam mm-hmm. yàlla ne sopp seen xar kanam ba kenn du leen xam man nii ngeen ma xamee nii laay dekk wala suuf du ma lekk Cheikh Ibra waaw Cheikh Mourou Fall mu la ko wax suuf du ma lekk lii lay dekkwaalee daal di wax ne ku maandu ak ku mokkal alxuraan ak wàllu suuf du ko lekk sëñ xam ne fekke woon na dem fekke tey nee na loola am na bis sëñ Ibrahima Mbaye la àndal ci armel yi am koo xamante ne bii dafa faatu lu ñu amoon bubbum barkeelu nee na sëñ Ibrahima ci boppam ñëw na ba tiim kooku ba sans borom dogal mu tegal ko mbubbum barke mu teg bëtam ci na suuf la ma ko te ñun bi ñuy liggéey barab maam Cheikh Ibrahima am naa lu ma leer ci samay bàyyi ngi dund ñoom ñoo xamante ne bii ñoo daat ñoo doon gas fondation ba mm. Mm. am na ñaar ci njabootu Cheikh Fall ñoo xam ne yem nañ ci ñoom te suuf laalu leen mm. kenn ko soxna Roqee Fall la doomu Cheikh Fall bu jigéen la yaay fat Fall waddee ndeyam ka ca des sëtam la muy sëñ Abdou sëñ Abdou sëñ Abdou Xaddim Fall sëñ Xaddim Fall la tudd sëñ Mortala ku jur moo jur sëñ Cheikh Xaddim bi def première rek ñaar ñi day yam nañ ci ñoom te suuf laalu leen hmm. te te te alali Cheikh Ibra Fall kon Cheikh Ibra moom li nga wax léegi ci diggante moom boromam leer na nañ hmm. dimension ba mu nekkoon itam loolu ñëpp xam nañ kon nag noo ngi ñaan suñu borom dool dafa yàggal bu baax hmm. te doolu lëwén noo ngi ziar bu baax nag murid yi soxna Fatou Diop ca Kayar. Mm-hmm. soxna Fatou Diop waaw ah, soxna Fatou Diop. bàyyi laat. ko sama mag la. <laughs> ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax. waaw ah, sama mag la. tubaarkaal di ñaan suñu borom mu defal ko yàgg ak wér. waaye di ziar bu baax a baax murid yi nga xam ne itam ñu ngi nekk Ngaye. Mm-hmm. di leen jaajëfal bu baax. ngay mexe ay jàmbaar soxna Seydou soxna borom kafe gi soxna Seydou Thiam. soxna Seydou Thiam moom <laughs> gis yow xoolal lii lépp moo ko ci boole. léegi bi ñuy tàmbali nee naa la ba mu yëgee ne sëñ Xaadim. Hmm. moo ñëw ci jotaay bi dafa ne café jës bu murid mu maa ko indi. murid hmm. bee la la ñu booleel. tey moom mais jàmbaar sëñ Ibrahima Ndiaye. waaw sëñ Ibrahima ndeysaan moom moom moom moom murid. sëñ sëñ Bayloo ñu ngi koy nuyu baax. ak sax sëñ Donga Fall waaye sëñ Isma hmm. Isma Diop waaw Ismaïla Diop. Ah, tailleur waaw moom mu la def nii saa yi moom bëgg naa ci lool te yàgg na nag yàgg na noo defal lu mel nii. waaw Lamfal Couture tey moom moom nee na sax yéeneem mooy. waaw soit bu ñuy toog jës bu murit moom moo ñu solal moom loolu mooy yéeneem. sëñ Isma rek maa ngi koy ziar waaye gis na turki njaarim sëñ Xaadim. Hmm. dama bëgg murit yi daw dem ci sëñ Isma hmm. am turki njaarim. Hmm. dama leen di jox numéro bi ne ngeen daw. <laughs> mat na ko def waaw 77. waaw 542. 87. 76 te daa soriwul sax mu ngi fii rek. marché marché parcelle Gueule Tapée. 542 87. 76 marché Seydina waaw moom du turki njaare mën na ko xam nga Isma murit la moo tax. Uh-huh. waaye nag cërub Seera Fall na. Uh-huh. di ziar soxna Njaxat Fall xam naa nag moom xam na li xew. xam na li tax uh-huh. ma wax ko <laughs> dañu koy ziar ak soxna Ndeye Fall. ñu ngi ziar bu baax a baax Serigne Aline Badara nag boole murit yi ñu doon ke jiite njaboot gi di sëñ am ni Modou Mbenda yàlla na fi yàlla yàggal xam nga ne ma jëy buñ màggalee ba bis naa la set lay tombel njabootu sëñ Modou Mbenda ngi a njakkar ma jëy ndax njakkat sëñ Cheikh Rafa la fa dëgalam sëñ Modou Mbenda sëñ Bakki Xari Diop ñuy fàttaliku sëñ Modou Mbenda buñ màggalee Daaru Salaam ba bis ba dellu si njakkar ma jëy ren nag ñu ngi koy woote incha allah fas yéene ko ànd ak murid yëpp Mmh. waaye di ziar bu baax soxna maam Diarra nekk Touba Espagne Palma de Mallorca. waaw di ko ziar bu baax ngi toog jotaay bi fii ci Dakar waa Palma de Mallorca di jottali nag ab ziar. suñu Abdou Assis Fall. moom sëñ Mourou Moustapha Fall di ñaan suñu borom yokk ay leeram amiin amiin di ko ziar mboolem njaboot gi Cheikh Moustapha ak sëñ Maam Cheikh ak mboolem mm-hmm. njaboot gi waaye nag di ko di ziar nag di ko teg ci loxol tamit soxna maam Jaara ndax gëmul ko suñu Abdou Aziz Fall te mi ngi topp jotaay bu baax a baax waaye di ñaan suñu xarit boobu di suñu baay boobu di suñu wëllëre woowu mm-hmm. nga xam ne barke borom Tuubaa am na bis boo xamante ne bi mm-hmm. daf ñuy ñaanal daal ne naa ñaan ci barke sëñ Aliou Badara ñii ci jotaay bi barke Cheikh sëñ Abdou Aziz Moustapha Fall hmm? loolu loolu loolu leneen waaw ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yokk ay leeram bu baax a baax na sunu yaay bu baax moom itam nekk ca ngaay muy soxna Faat Diop di jàmbar lool taxaw ñu taxawaay bu am solo ci suñu xasida bi di ziar sëñ Xaadim Thiam nag ak sëñ Ibrahima Guèye ngaay moom faaw ñu may leen ak ngont rek waaw ngaay nag Baye Cheikh Ndiaye daa mënta ñàkk waaw Cheikh na mm. dëkk ngaay moom moo ko fa dël daana wax ne nag kuy dund mën na maa a xam waaye Cheikh Ndiaye daa ne ku faatu ba am ñetti fan ci bàmmeel nga xam ne tax Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima rek mu yëm <laughs> moom xanaa ngaay ngaay ngaay ngaay maxee mm-hmm. waa kër sëñ Modou Thiam ba Baye Modou Thiam Baye sama sama sama baay maa ngi leen di siyaar bu baax waa kër Baye Ibrahima Ndiim waa kër Baye Sidi Ndiim ngaay moom sama dëkk ah. ndax sama sama sama sama sama mbokk yëpp a ngi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax yàlla ñu ngi sëñ Modou Diagne sëñ Modou Diagne nekk foofu ci ngaay man sëñ Modou jaañ ah, waaw ak soxna Awa Diagne sëñ Sëriñ eh, sëñ Abdou Dieng sëñ Dame Ndiaye ñoom ñëpp eh, ñu ngi foofu ci ngaay di siyaar baax baax sëñ Jili Abdoul Khadir Samb mm-hmm, maa ngi lay jottali ziaram sëñ maamu ah, sëñ sëñ xaadim si bisam bu am solo bii nga xamante ni moom la doon taxawu keroog dimanche mm. di ñaan sunu borom gën kaa taxaw ci mm. alquraanul karim liggéey bu réy bi mu siy def mm. sunu borom kàttanal ko ba mu defee ko nu kawe njortam di ko jottalit eh, ziaru sëriñ Cheikh Mounda Fall ne eh, ne nee na keroog ndeysaan bisam bi bu ko fekkoon eh, ci bu ko fekkul woon ci tool yi amaana amoon na yéene loolu teew si wax dëgg yàlla seen jiili kon di ko ziar ak mboolem personnel bu Lamp Fall bi nga xamante ni keroog ñëpp taxawu nañ taxaw bu am solo si bis bu am solo boobu boobee di ko ziar bu baax sëñ Jibril Dia taximaan moom nee na maag maag moom ñu ngi si yow ah. man leen man moom xam naa ne man maa ngi si yow rek sëñ Mbaye Diop baax a baax wax dëgg yàlla waaye di ziar bu baax sëñ Ngañ bi tey moom it xam nga ni ni yàgg na koy def ak ñun di ko ziar bu baax maa la wax lii sëñ Fallou mu sëñ Cheikh Mounda Fall ñu ngi koy ziar bu baax Baye Wura Diaw eh, sëñ Baye Bass leen di ziar bu baax Baye Mortale Gueye waaye di beral nuyoo ak ziar njaboot sëñ Cheikh Mounda Fall gépp rek tambale ko si mam salihu Fall di ko ziar di ñaan sunu borom yaggo ko fi lol to mo ànd ak wér ñom baye Abdou Chakour Fall di len ziar bu baax señ fallu Fall mboolem njabot gi rek waye di bëral nuyu ak ziar Serigne Badalo. Ya waaw sama sama Serigne bobu sama genn wal sama lepp mang koy ziar ci ties sëñ Modou Ablaye Fall. sëñ Jili ndeysaan alhamdulilah sëñ Cheikh Sarr. dama bëgg moom man ak yow ak sëñ Xaadim. mu àndandoo nag. jot li ma ab ziar ak ñaan ak i cant ak ngërëm soxna Bali Muntaxa ah soxna Bali suñu borom yàggal ko murid boobu de mat na ko si yow waaye mat na ko si ñun ñëpp sax sëñ Mamour ndeysaan soxna Bali kooku dañuy ñaan suñu borom suñu suñu borom yàggal ko fi moom te dolli ko wér amiin moom moom bul si yokk dara su teraanga waaw du ma ci yokk dara teraanga mu tawee su tabarkàlla bul si yokk dara waaye moom xam naa ne teral na ma tabarkàlla macha allah <laughs> sëñ Issa murid Issa Diouf mm-hmm. di ko ziar bu baax a si taximaan moom suñu lépp wax dëgg yàlla kon mbokk yi sant leen bu baax a baax si jotaay bi ñu àndoon Serigne Khadim Ndiaye Kayar incha allah Serigne Khadim lii moom bu mu gëjët <laughs> déedéet day am à suivre sax du yàgg incha allah waaw à suivre daal <laughs> moom daal xam naa ni fan yii rek sëñ Ibrahima di la sant bu baax si si taxawaay bi ak mboolem daayira Touba Wakaam soxna Seynabou Thiam Baye Fall di leen ziar bu baax a baax Baye Ndongo santaat nañ moom yaag yaag Baye Mbaye Lo moom ak Baye Serigne Ngom ñàkkul ni bis moom ñooy bokk jotaay bi incha allah mën ta ñàkk ziar bu baax a baax nga di Touba Baye Mbaye ñu koy ziar bu baax a baax wax dëgg doon gunge si émission bi ñëpp rek wax dëgg di ziar bu baax a baax euh, sëñ euh, sëñ Cheikh mi euh, yoru fas yi ñu ngi koy ziar bu baax a baax mm-hmm. tey ziar bu baax sëñ Madiang si ak Yankuba Daabo ñi nekkoon si wàllu caméra bi waaye te Abdou Sow ci wàllu son beeg vidéo bi àndoon ak sëñ Dame Thioune si wàllu réalisation bi Mor Thiam ñu ngi lay ziar bu baax a baax ndeysaan sama doomi day boobu ñu yàgg loolu waaw ci marché police di ko ziar bu baax ak ñu leen njaboot gi mm. mbokk yi bàyyi leen di leen bàyyi di leen bàyyi ak sëriñ bi tey des ak moom xam naa talaata bii di ñëw incha allah Jazboul Mouride di eh, soññawaat nag xam naa dinañ si dikk sax ndax tabaski jege si na hmm. te nun Baye Fall amuñu lu dul ndigal yi ah, ndigalu xar yi kon nag moom li sëriñ bi di wax saa su ne maa la wax lii ka mën xar hmm. moo gënal sëriñ bi mm. ko ko mënul njëgu xar te teel kaa joxe sëriñ bi mën kaa teela fàggu mm. te nag buñ koy wax mooy xaaf mu mat tabaski te bañ a waaye bu mosoon sëñ bi mu baax jox ko fa loolu loolu ma ko Mamadou Ndoye Diagne ñu ngi koy ziar bu baax a baax ñooñu moom xam nañ li xew wax dëgg yàlla ñooñu moom si sëriñ bi rek maa ngi koy tuub nag ñoom xam ko ñoom sax ñu waari biir waaye nag moom dañ kaa yëg rek di koy ziar bu baax a baax te nag ndigalu tabaski gi mm. wàññiwul dara sëñ xaadim ak liggéey bi nga xamante ne jamono ji ñu ngi koy liggéeyal Cheikh Mouhamadul Moundaka mu fi Cheikhul Khadim ca ca institut islamique ba di fay saat ba nekkoon ca Mbakke mm-hmm. fi mu ne nii Baye Fall yeeg murid yëpp a nga fa di di liggéeyal barki gis ndeysaan mm-hmm. euh, maire Abdou Mbacké Ndaw indi fa lu toll si juróom ñett fukki tonnes quatre-vingts tonnes barkeeloo ko ci liggéey ba ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi koy def yëpp njaboot Cheikh Ibrahima daal ñu ngi fa nawet baa ngi nii tabaski yaa ngi nii liggéey baa ngi nii kon nag ñun Baye Fall li ñu naan ñoo fi ba moo ñu fi ba <laughs> kon nag waaw ay jëmurit ah, kon loolu loolu leen tàggoo xam naa bala may daaneel rek mhm. suñ daam may ma rek ma euh, ziar bu baax waa douane mhm. waa ay murit lañ ay Baye Fall lañ maam maa la wax lii <laughs> euh, euh, dinaa si tudd ku si mel ni sëñ Souleymane Mbeng mhm. Baye Fall duñ ko ñu ngi koy ziar bu baax nekk bureau 19C ca ca ca waaye te Serigne Cheikh Fall ca Molde direction douane bi nekk ca Molde di ko ziar bu baax a baax sëñ Ababacar Diop buggul sax ku ko tudd waaye nag xaw ñu tudd leen rek di leen ziar bu wër a wër sëñ Mor Gueye maa foofu ci port bi maa la wax li mhm. tubaarkàlla kon nag waa axiru daawaa port mën ta la wax li ay murid lañu ñu ngi koy ziar bu baax moom it murid ba ca daay rapport <laughs> jeex na tàkk ak sëñ Maguette Diop ak sëñ Fallou Diop ñëpp waa axiru daawaa naa rabbil alamin